jërëjëf tey jërëjëf tey sama gaay yi sama gaay yi sama gaay yi all of shake back in the house Brooklyn New York Brooklyn New York ngeen di am sama gaay yi sama gaay yi jaajëf tey jaajëf tey shake depuis Brooklyn New York waaw gaay merci merci Khady Sagna dugg rek like merci merci ku dugg likeal ku dugg likeal Rokhaya Ndiaye jara jeuf like len like len like len partage len parce que tay li ñu wara wax dafa bari quoi vraiment tay mom Farba bangam mom tay mom buñ ko may dara dara dara dara xam nga temps yëpp maa ngi koy attaqué waaw man moom nee naa leen man mel ne damay yëg quoi temps yëpp maa ngi attaque chance wax vingt euh, deux cent cinquante millions yi dama koy tudd waaye nekk te li ñuy wax yëpp Farba Ngom OFNAC daf ko génne rapport OFNAC moo ko génne like leen partagé leen ren noir Farba Ngom waaw yow nga dem mu takk la Farba Ngom ne milliardaire ko wax vingt 27 kër 11 terrain man de li ma compté mat na 11 terrain am na sànq ku ma bind sànq ne ma monsieur fàtte nga fàtte nga terrain jam ñaajo bi non c'est incroyable parce que xalaat TV xalaat TV waxul euh, terrain jam ñaajo mais lan moo tax Farba Ngom feeñ lan moo tax Macky Sall wax of nag mu def benn rapport ci Farba Ngom ak kan moo ko fuité pourtant Akhenaton mi ngi ñu doon wax ne Farba Ngom ak Macky dañu am problème mais bëgg ñu ko won gëm bëgg ñu ko won gëm waye ku gis rapport bi kon di nga ne far ne Akhenaton limu wax la sank le 23 septembre am avons une vidéo bu Akhenaton genn mu Farba bo mu jël 100 et quelques millions Macky Sall Macky Sall la euh, New York.

bëgguma sët gars yi mel na ma deux sët man ragal set waaw parce que je suis en forme Farba moom kuy wax ay mbiram doo toog Farba kuy wax ay milliardam waroo toog waaw vraiment lii dafa ëpp quoi milliard Farba milliard ay milliard bien fait pour Baldé waaw mais voilà nous avons balé. Gaï. Far bangom. Far bangom. 27 maisons. Far bangom. 27 maisons. Nyan fouk. Abdurum nyari. La Khalak TV. def vraiment vraiment kan moo bëgg daaneel par Ngom est-ce que Macky Sall moo ko bëgg daaneel comme ni ko Akhenaton waxee waxoon naa leen sénégalais yi boo leen bëggee sénégalais fippu boo leen bëggee sénégalais mer Macky Sall ak waa APR seen poos ngeen di attaqué bàyyi leen di ma wax wax pétrole bàyyi leen di ma wax ay 29 milliards Prodac loolu passé na waaw kii nee na am na sax kër Maroc waxoon naa leen ko waxoon naa leen sama gars yi ah ne leen ah, Macky Sall boo bëggee mu dem abal la nguur gi poche am di laaj ngeen di laal Farba Ngom gars dañ ko ragal man rek ma fi nekkoon fan yi di rappeler deux millions man nee naa man dafa gars yi dañ may suivre wala boog wala boog tombe moo waral ay gaam lan moo tax su ma waxee nañu waree kër yi nañu waree kër sama live yaa même ci semaine bi passé rek dama ne nañu wane këru euh, Amadou Sall yi Dubaï bu dee dafa am ay kër dañ ko wane comprendre nga nañu wane këru Macky Sall Maroc bu dee dafa am kër boo leen bëggee Sénégalais yi fépp noonu ngeen di def da ngeen di wane xaalis bi ñuy yàq di ko caxat caxatee mooy di def boo leen waxee avion Macky danaan avion bi senegal ko moom loolu la leen di may waaye xam ngeen ni Farba Ngom mënul rëcc kon man temps yëpp loolu laa doon ma ne Pape Alé il mu def investigation dem leen Dubaay boo leen demee Dubaay lépp lu fa Amadou Sall am ngeen wane ko wala ko mu ne filmer muy dawal Ferrari wane leen ko il faut que lolu moy xex bi way tok fi diñu bëgg ray hein ah, diñu wax ay vingt neuf milliards euh, euh, OFNAC Hein, ah, phosphate bi jaay nañ ko tubaab bi pétrole bi jaar nañ ko tubaab bi lolu combat bobu passé nañ ko parce que ça fait des années ñuy dégg OFNAC waaw kon nak buñu ñu demee ba ñu OFNAC lan office national euh, contre la fraude et la corruption loolu rek titre titre titre bi rek gars yi laaj leen yéen tamit cinquante six personnes dix-sept laaj titre bi rek moo la war a njëkk tiital office national de la lutte contre la fraude et la corruption vraiment moo génne rapport ci farbangom. Ngom Xalaat TV ci loolu la sukkandiku ngir wax ne Farba Ngom vraiment vraiment badolo, le paroxysme n'est-ce pas du badolo. nan ngay amee ñaar fukk juróom ñaari kër nan ngay amee fukk ak benn terrain te kër yi ci quartier yi gën a baax foofu la am kër vraiment vraiment yàgg naa leen wax Farba Ngom gars yi dañ koo ragal parce que Farba moom da leen di napp di leen tiital di leen yuuxu arrogance bu toogee Pape Ngagne a ah, di yuuxu boo koy bi muy mer xam nga larviste xam nga c'est le prototype de l'arabiste koo xam ne musoo jàng amoo tous nee nga courtier nga sama papa courtier la woon sama papa moo la gën a ay fuuf sama papa comptable la woon courtier la impôt domaine la doon liggéeyee domaine ci Mame Boye jaw nekk Mamour Diallo nekkoon fi directeur bureau Dakar yàgg naa fa dem bi seeti sama papa foofu la doon liggéeyee te sama papa amul ay immeuble yow Farba Ngom sama papa moo la gën a jàng fuuf amul immeuble amul ben kër la am HLM jeexna jeexna yow ñu tuddal la ay 27 maisons xex bi fi la xex bi fi la bu len ñu sonal chaque jour pétrole di jaay nañ ko tuba bi géej gi sàcc nañ ko bu len ñu sonal génne leen dossiers yi ku nekk li nga am woné ko waaw fi Sénégal la wa APR sen bop dañoo bañanti sen biir comprendre waa APR dañoo bañati parce que kii nan la def ba xam Akhenaton nan la def ba xam ne Farba Ngom Macky Sall dafa toroxal ci palais ba benn réunion daf ko dàq parce que Farba Ngom dafa lekk ay milliards am loolu la Akhenaton wax Macky Sall ne sortez le di d'ici benn gendarme gendarme yi nekk ci pale ba génn ne ko le ministre il faut nga génn Macky Sall ne bu leen ko tuddeetee ministre bu leen ko tuddeetee ministre moom Macky Sall dañoo am problème moo tax mu ko doon jéem a neexal jiitu ko yóbbaale ay mbër

non seulement dafa autorisé mais deuxièmement rapport bi pare Macky Sall naju ko rapport bi fuité kon Macky Sall il veut détruire Farba Ngom kon nag bu ñu toogee ñu woo Farba Ngom jàpp ko sax bu ñu bett lan la Farba Farba Ngom def Macky Sall Akhenaton nee na Farba Ngom dafa dóor Macky Sall Macky Sall da ko jox ay milliards ngir mu liggéeyal ko Farba Ngom jël milliards yi di ci jënd ay kër di ci jënd ay terrain baadoolo yu bon yi wax naa leen waa affaire ay dëmm lañu mais dañoo tapet Farba Ngom parce que Farba Ngom dégg naa policier sax bu ko arrêté bu ko arrêté gësëm la waaw am na policier bu ko arrêté woon mu saagu ko tey gars yi laaj leen partagé leen 78 personnes 27 laaj te sama yaram dafa tàng parce que man yii ñoo may révolté yii ñoo may révolté billahi sama xool neexul tey parce que man taay maa ngi dégg ñu naan Farba Ngom Farba Ngom Farba ko dégg mu naan 25 milliards pour man gars yi wax nii rek. mais ma seetaan xalaat TV mu may wax am na kër kër bu nekk ci géej gi un milliard lay jar kër googu ñëpp ko gis ndax kër googu defe naa mooy kër gi mu rangale ay oto oto yu bëri yoo xam ne dawalu ko sax da ko bâche loolu mooy baadoo la da ngay ut rek da ngay ut rek doo doyal mukk almaadi almaadi nga xam ne mooy quartier bu gën a naay senegal boo fa demee sax doo fa bëgg a yàgg parce que da fay gis ay kër yoo xam ne dalee leen kër yi cinq cent millions un million doo fa bëgg almadi bo fa demé do fa bëgg yag nga gis nga gis parce que dama ne dama ne xoolal kër yi te dañ ko sacc nga gis Youssou Ndour dëkk fa ah nga gis euh, euh, euh, waaw waaw Farba almadi ñu ne la amna fa yenen ñent kër mais déjà bu yémon fofu rek nit ñi dañuy mer parce que almadi rek terrain 200 cent millions Farba Ngom non seulement amna fa kër bo xamné dañ né dafa dafa nek ci bor géej wa gaay da ngeen di laaj gën gën partager APS sama yaram dafa tàng waa APS bu ñu may dara waaw parce que ay dëmm lañu wax yàgg naa leen wax ay dëmm deretu askan bi la ñuy lekkee nan ngay amee vingt sept maisons vingt sept nan la man maa ko doon compté dama ne man de li ma fi li ma fi compté ci kër war na ma quinze loolu laa wax quinze ba ma njëkk seetaan pour man ay quinze la mais dama obligé ma seetaanaat ko ba ma ko seetaanee dama koy sax pause pas ko doon pause parce que je ne pouvais pas euh, euh, comment dirais-je I could not keep up tellement xalaat la bi li Je doon wax ci note note tellement dafa obligé Je ne milliard après je ne quatre trois mètres carrés je vous ne millions sept milliards sept millions c'est da koy loué quatre kër yooyu loué encore quand Almadi cinq armel amna fa 5 heures ma pose ma pose bind jël note après mu newat mamel amna fa 5 maisons 200 mètres carrés nan la nit di amé ben ben mamel rek mamel te fofu yep dafa bax dafa côté bu côté guide gi la ñaata la fa am juromi keur encore muy ñaata 5 plus 5 du 10 5 plus 5 du 10 déjà almadi ak mamel amna fa 10 keur légui ñewuguma sax ci terrain ñewuguma sax ci terrain mermoz même nous am fa ñaari immeuble du douze lolou du douze gars partager les, l'ag laaj partager partagé leen Mermoz mu am fa ñaari immeuble te immeuble bu nek xam nga ñaata la huit étages immeuble huit étages ñaar la ci am Mermoz mais Mermoz fofu la Macky Sall deuk c'est le quartier huppé Almadies Mermoz pare guñu muy ñaata 12 ans légui mu dem kër gor gi kër gor gi fa la Sonko deuk kër kër gor gi fa la Sonko deuk te Sonko ben kër bu baax la fa am mais xam nga Farba Ngom ñaata kër la fa am selon Khala TV, Far a 6 6 maisons. 12 plus 6, 18. 18 cœurs. Sacré cœur, il y a un quartier Il y a un quartier pour Doyouar. Sacré cœur, il y a Immeuble 7 étages. Il y immeuble Immeuble 7 étages. Donc, 18 euh, plus 2, 20. Sacré cœur, 20. 20 cœurs. Point E. Il faut que l'on point fa la Ablaye Wade dëkk fa am kër bokk mu am fa ñaari immeuble ñaari immeuble wax ñu ñaata étage la mais boo demee ay six étages la yooyu lay doon du 22 du 22 kër cité Damel xaw ma fa sax man am na fa ñetti kër du 25 du 25 ah aéroport non loolu terrain la Thiès Thiès am na fa Saly am na fa ñaari kër muy 27 kon ni mu compté baax na 27 kër 27 kër. te yooyu rek lañ jàpp boolewuñ si sax këru añam parce que moom añam si vol la dëkk boo demee añam si vol am na fa palais boole ñu sax këru al añam si vol ak yeneen kër ñu gisugul benn nit nga am vingt sept kër mais c'est du n'importe quoi bu jugee di ma wax ay pétrole buñ jugee di ma wax ay ay ay gaz mais buñ sàccee pétrole bi sàcc gaz bi sàcc lépp mais dañ si dañ xaalis bi dañ koy denc wala ñu jënd si kër te ñoom du ñu denc xaalis dañ ciy jënd kër gën rey nit loolu dinaa ci ñëw moo tax bu leen ñu wax wax pétrole xaalis pétrole bi sàcc nañ ko mais jënd nañ ci kër wane leen kër comme ni xalaat of nag sax moo ko def bu duloon xalaat bu duloon of nag bi sax du ko xam loolu kër rek la kër na ci terrain na ñëw ci terrain après ñu bind Mermoz am na fa benn terrain junni carré mille mètre carré junni mètre carré ñaata terrain nga fi mën a am mën nga ci am yu euh, 150 mètres carrés 150 150 300 mën nga ci am 6 6 que xool loolu rek xool loolu loolu Mermoz am na fa 1000 mètres carrés wax leen ma beneen terrain xaar ma xool yeneen terrain il faut nga leen di jëlal nag sa Léopold Sédar Senghor aéroport bu yàgg ba li taxoon ñu bëgg ko yàq ut Blaise Diagne parce que dañoo bëggoon séddoo suuf si. mais, mais Fat Bangom, tu vois pas mon que c'est, il 8 terrains, 200 mètres carrés. Moi, j'ai un terrain là, 170 mètres carrés. Tu vois, je ne peux pas faire ça, 170 mètres carrés. Je ne peux pas faire ça, tribunal 7 mois, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours, Mais Fat Bangom, j'ai 170 mètres carrés. Fat Bangom, j'ai terrain, 200 mètres carrés, sur l'aéroport. 8, là, tu as 8. Il 9 terrains déjà, 8 terrains. am na beneen terrain bu 2000 mètres carrés ñaari junni mètres carrés du neuf terrain am beneen terrain Somone bu 800 mètres carrés du 10 du 12 terrain waaw man sax 11 laa compté woon mais fii 10 10 léegi 10 xaaral ma xaaral ma dugal sama téléphone. oto yi nag oto yi nag dégg naa li mu am ci oto mat na 1 milliard mais balaa mu wax ci oto yi nañu ñëw ci terrain yi. ndax sama benn abonné bind na ma mu ne ma monsieur fàtte nga deux xaw ma ñaata hectares deux hectares yu Farba Ngom am fële en en te loolu rek la ñuy jàpp ci Farba Ngom am na côté Yoof defe naa am na ñu fi porté woon plainte parce que dafa doon xëccoog ñoom ay suuf defe naa côté Yoof la ay lébu waaw te Farba ne moom moom terrain bi sans compter yeneen i yeneen mais vraiment vraiment.

ba of nag di ko wax ngeen may juge ngeen may wax sàcc waaw xaaral paraguma ci yéen après dinaa ñëw ci yéen X6 nag boo ko gisee da ngay jébul dégg naa Farba Ngom jënd na X7 X7 mooy mooy modèle bu bees bi soixante et quelques millions lay loolu la kii wax loolu la xalaat TV wax ren rek yi trois mois y a trois mois jëndaat na ñaari Mercedes bu ci nekk vingt millions cent millions rek dépensé na ko ci trois mois yi ci oto cent millions këram daf ko rangale ay oto ba kenn xamul xamul lu muy def

man dama gëm ne makki li ton wax man bëgguma ko won gëm le 23 septembre motax tax defuma ci émission man man lépp lay sétan gaay yi laaj leen gën leen partage le 23 septembre man sétan na naa ton fu muy waxé ne fat ba Ngom makki Sall da ka dàq xam nga daf kaa mere parce que da ko jox xaalis mu mu lekk ko légui fat ba Ngom dafa bëgg neexal makki Sall motax mu jël 100 millions yob ay mbeur diko jema téru euh teeru mais makki Sall da ko mere man gëmuma ko dama yaakaar ne ton day wax ni rek

nga am ci lu mat vingt cinq milliards te loolu rek la ñu gis bu leen fàtte ne kër magam xaw ma kër rakam fekk nañ fa deux cent cinquante millions deux cent cinquante millions gars yi ñun ñu ngi fii euh, émigré di rey suñu bopp bàyyi suñu jabar Sénégal di jël suñuy xaalis di yónni Sénégal chaque semaine ñu yónnee xaalis mënuñu sax am terrain bu baax ah wala nga am kër ñu tojate ko comme bu soo parce que lu tax parce que ànduloo ak Macky sal ñu toj sa kër Maimouna Bousso waaye Farba Ngom am cinq kër la am almadi almadi la ilaha illallah almadi ko fa am terrain waxoutuma la nga am fa juróomi kër am ay immeuble non vraiment c'est le comble du badolo du badolisme xaw ma sax ni ko wara a c'est le paroxysme c'est le summum de la gourmandise ni nee len ay dëmm lañu te farbangom rek lañu japp farbangom rek lañu japp jàpp gum farbangom Ngom am li te mom du tous du DG du ministre du ministre d'État du gàtt mu am lii yëpp kon Macky Sall lan la am kon Aliou Sall bi ñuy wax ay Dubaay dafa am ay immeuble kon war na nekk dëgg moo tax ma ne leen xeex bi foofu la gars yi gën leen laaj gën leen partage xeex bi foofu la bàyyi leen di ñu wax seen wax ñu ñàkk fayda ay passeport diplomatique yi sax am na importance c'est vrai mën nañ ci wax mais li xeex boo bëggee Macky Sall jóge boo bëggee waa APR jóge fi seen poche ngay laal fexe leen ba xam ku nekk li mu am ngeen ne ko fang billaahi léegi nit ñi génn parce que tamit nit koo xam ne pâte dentifrice sax comme ni ko Cheikh Bara Ndiaye waxee léegi dañ koy dañ koy jënd détail ñuluk añ dañ koy jaay léegi Sénégal bu ñu la waxee ne daggitu bër bu doon jot juróomi dërëm ñu yokk ko fukki dërëm gars yi di kaas café Touba bu doon jot fukki dërëm ñu yokk ko cent franc nit ñi di kaas liggéey amul gat amul boo leen bëggee population bi génn da nga leen di wax ne ñii ay sàcc ay sàcc yu bon ay dëmm ñoo jiite ci niroo comme ni ko axalee toon waxe ñii jox leen sax ay xar ñu nekk ay sàmmkat sax amuñu sax qualification pour nekk sàmmkat sàmm ay nag wala ay sàmm ay xar waxtuma laa nga leen di jox réew ñu ne dañuy sàmm ay ay nit vraiment waa affaire ay jaam ngeen yéen li ngeen ñu reyee doyul te li ci gën a soof mooy ba pare ñu bëgg bëgg gagné élection ngir continuer parce que ñoo la gën a xam ne Macky Sall bu daanoo ba Ngom xaalis bi yëpp dina ko goqi moo tax gis nga nit booy def defal lu baax xam nga ne Farba Ngom nelawatul Farba Ngom dootul nelaw milliards yi nga am yëpp dootul nelaw kër yëpp dina ko jaay dina profité jaay kër yëpp waaye xëy ne balaa mu koy jaay xëy na Macky dina ko jàpp mais gëmuñu ko Macky Sall du ko jàpp Macky Sall du ko jàpp parce que far Farba courtier la te te kii am nañu bind ñu ne terrain yi Macky Sall am far ba ngoom moo ko jaay Macky Sall te boo ko ndaree jàpp day wax day wax li mu jëndal Mariam fay Sall li mu jëndal Amadou Sall li mu jëndal mag sàll et cetera et cetera Farba Ngom bi moom lañ ci jàppoon mu dem France xaw ma ci aéroport ba ñu ne dañu fekk ci moom ay millions mais far Farba Ngom mooy kan ba nit ñi ragal ko parce que parce que dafay yuuxu nit ñi. bu nekk ci benn journaliste ñeme ko kenn ñeme ko man de man monsieur Cheikh rek maa ko ñeme man temps yëpp maa fi nekk di wax deux cent cinquante millions deux cent cinquante millions deux cent cinquante fu ma amee occasion wax ko aw ma lu may ragal aw ma lu may ragal heureusement bu xalaat TV def ci lii mais bu doon of nag bu doon nag dañuy maasal di maasal muy muy muy gën a tibb rek di gën a tibb lii moo feeñ c'est la partie visible de l'iceberg c'est la partie visible de l'iceberg nii ay dëmm lañu Amadou Ba lan la am Abdoulaye Daouda Diallo lan la am Matar Ba lan la am euh, euh, euh, ku ma nee na damaa nañu wax ci xalpulaar yu bon ñi nga xam ne waa Fuuta Tampi ñoo leen njëkk a bañ lan ñu am ñoom ñëpp lan la ñu am boo leen bëggee ñu dem fàtte waxu élection waxu troisième mandat fexe leen ba ku nekk nga génnal leen seen bopp dootuñu tal troisième mandat bu boobaa dootuñu tal troisième mandat ñu jéem a profité pour jaay Seni i kër jël xaalis bi yóbbu ko banque suisse ngir préparer pour dem bo len bëggee Macky Sall dem noonu ngeen di def wax naa man Mr Cheikh ma ngi len di jox ay stratégie parce que nit ñi pour ñu génn il faut que ñu gis ni ñi ay dem lañu comme doomu doomu IBK bi dafa génn vidéo Macky Sall du len may vidéo Amadou Sall du len may vidéo Ali Sall du len may vidéo parce que ay neex de ray lañu ay nandité lañu ce sont des Sénégalais c'est parce que xëy na Farba Ngom dafa def nag ba ëppal nag waaw ndax Macky Sall bu demee ba ba ba géwalam mu sacrifié ko laaj bi sax dama fàtte noonu laa ko ndoroon tuddee Macky sacrifié Farba Ngom parce que lii kat Macky moo sacrifié Farba Ngom Macky Sall bu demee ba sacrifié Farba Ngom parce que xam na ni kii yëfu dëmm lay def ndax benn nit rek ñu compter la vingt set kër ñaar fukki kër ak juróom ñaar te yow kër yi amuloo ko HLM amuloo ko géeje géejawaay amuloo ko waxu ngóona amuloo ko euh, euh, euh, tuwaawoon pël quartier yi gën a nice Dakar nga ko amee Mermoz fa la président dëkk kër góor gi dafa rafet man mosuma fa dem waaye gis naa Sonko bañ koy ba ba muy dem di watu bañ koy ba mu waree wuyu ji da doon doxantu kër góor gi dem ci coiffeur ba di wattu mais boo xoolee quartier bi da nga naan la ilaha illallah nekk ci Sonko fii la dëkk nekk dakaar Dakar kër yu rafet yi am na fa man sobbu ma

xanaa ñun suñu ndey liggéeyu liggéey déjà Sénégal yëpp sàcc nañu Almadies est-ce que am destiné terrain gëmuma ko gëmuma ne Almadies def terrain destiné lépp la ñu sàcc mais Farba Ngom mooy mooy baadoolu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg benn nit nan lay amee juróom ñaar fukki kër ak juróom ñaar te xaalis cash ñëwagul terrain ñëwagul oto ñëwagul benn nit ñaar fukk yow kër bi ngeen bi am ñu añaam sax boole wu gis ko ci te la may leen Fuuta yëpp am na fa kër billaahi waa affaire waxoon naa leen ay dëmm lañu lii nag moom mën a révolter su ci population bu leen bàyyi lii mu sedd lii moo ëpp importance passeport diplomatique bu leen ñu sonal ak passeport diplomatique ndax passeport diplomatique un million rek lañ fa daan am député député yi ku nekk un million 1 million par d'or. mais qui, ñaar fukki kër ak juróom-ñaar lañ ko konteel du gat gay laaj leen gën leen laaj gën leen partagé leen ni ñu mel dafa ëpp ba pare li ma gën sof. soof mooy ne dañoo bëgg toog man loolu moom sof quoi te of nag kan lañ fiy topp Khalifa Sall képp ku faralul Macky Sall la of nag di tàpp wala IGE Karim Wade mais mais ñii ñii ñuy tudd nii lan moo tax woowuñu ko ba dégg naa def am na fu ma liir ñu ne dafa porte plainte xaw ma dañuy porte plainte ñoom kan la ñuy porte plainte Farba Ngom am na war na am jom di porte plainte non xanaa lii du dëgg kay man ba léegi gisuguma rapport of nag mais nag xanaa xalaat ci bi demee demee ba wax ko ci laa koy doog a gëm mais est-ce que dëgg la gars yi dëgg la kanee ne of ci boppam moo def rapport wax lii lii dëgg la non pour man ay fake news la pour man ay fake news la Sénégal yépp ko wara xam Sénégal yépp wara xam mais nak activiste dañ fiy nek di di def ay ay live yo xamné amul bop amul gène di wax ay pétrole hein ah. néna tout Tounkara na baye ay affaire ressources naturelles c'est vrai de temps en temps war nga ci wax mais nañu wax ci Ali kala gi Ali kala gi mooy ne Farba Ngom mii lan motax tax géwul Macky Sall bras droit Macky Sall ñu defal ko rapport bu dee rapport bi am na te bi am na parce que bu amuloon xalaat ci bi di quoi c'est la vérité kay man dama kaa mënul gëm rek gars yi gën leen laaj gën leen partagé waaw lii vraiment lii vraiment c'est révoltant boo leen bëggee Sénégalais yi génn na ci ñëpp wax waaw waaw nee naa leen gis nga APR boo leen bëggee ñu jóge fi fexeel rek nañu fexe rek ba ku ci nekk li nga am ñu xam mais ñoom Sonko war nañ ko xam parce que inspecteur des domaines yëpp inspecteur des domaines yëpp yu ci bëri ay Pastef la kii Jomaay inspecteur de domaines la bu xoolee affaire yi dina xam ñen ñoom moom suuf si affaire 94 milliards yi ñuy jiiñ Mamour Diallo bu foofu ñoom noonu lañu def parce que dañuy dem di xool di gis ay affaire ñoom ñoo war a topp ministre bu nekk ak DG bu nekk ak ak transhumant bu nekk ñu xool li nga am li nga am boo ko amee ñu ne ko fang ji ñu ñu kenn sàcc waaye nag ñaar fukki kër ak juróom-ñaar moom ku ko am senegal bii sàcc nga Sénégal bii moom par Farba Ngom musuma la jiiñ sàcc même deux cent cinquante millions yi sax dama doon wax nii dama ne ah doy na waar daal waaye vingt sept heures Soleil Birame Soleil inspecteur ñoom ñëpp ay inspecteur la ñu génne dossiers yi nañu génne dossiers yi mais vraiment

ñoom ñoom député yi ñoom dañoo bëgg dañoo bëgg euh, nu mu tuddati location bi gën a yokk ngir ñoom ñu gën a am ay milliards ndax immeuble yi ñoom ñoo koy loué kon Sénégal yi nañu dee ñoom seen ñoo nekku ci mais lii maire yi xamuñu ko maire yi nekk ci village xamuñu ko xale yi xamuñu ko bu ko ñëpp doon wax nag ñëpp di ci wax ñëpp du ci wax ah au comme ni ñu ci waxee waxu Adji Sarr pour man lii moo gën a am importance waaw ah, mais bien sûr ay Dubaï ay Maroc yëpp boo demee Farba Ngom am na fa kër tamit même bu dul kër am na ay ay ay ay ay ñoom dañoo foqale benn nit nan la mën a amee loolu yëpp benn nit yéen doo leen xool waaw ah, dégguloo bu bu bi ma moom laa wax yéen da ngeen di xool da ngeen di xool benn nit nan la mën a amee yooyu yëpp Farba Ngom ak Fouta nu mu tempéwee Fouta nu mu sonnee Farba Ngom nga yor say auto yu baax gis nit ñi ñu ñu sonne ah nga yor sa say say milliards yore ay kër almadi gis nit ñi ñu ñu sonne moo tax ma tuddale nit ñi ay dëmm lañ ay dëmm lañ mais nak ñu ñoko def suñu bop Sénégal ñu ñoko def suñu bop ñi ñuy xeexee moo baaxul man dé au moins dafa melni gaay légui ñu may commencé déglu waaw parce que xalaat TV dama ne woon temps yi lé il faut que ñu radicaliser wu faut que ñu radicaliser wu bàyyi ay affaire non violence yi ñu jéem a xëcc ci ñu jéem a nax ci ay non violence man na leen il faut que ñu radicaliser wu Pape Alé Niang moo wax ko bàyyi leen pétrole beeg of kii ak 94 milliards loolu yàgg nañ ci wax léegi li ñu war a wax xam mooy lan gat sa gat sa Macky Sall bu wootee jàmm ñu ne ko bugguñu jàmm bugguñu jàmm tant que génnuloo nga ne du ma def troisièmement bugguñu jàmm bugguñu jàmm tant que suñu xale yi war a bind ci élection yi bind bugguñu jàmm

xam nga mom balaa mu koy def rek day fekk ji songu Sonko Casamance ci la koy doog wax man nak chaque jour dama ko don wax chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour. kon tay tamit li tamit mang ko don wax maa don wax ne lañu top xaalis bi lañu top sen poos mais américain non lay xexé terrorisme américain non lañu xexé terrorisme dañuy xol terroriste sen compte bancaire ak ñi leen di financer ñu neutraliser leen Macky Sall noonu lay xexé Cheikh Bara Ndiaye xana mo leen ndax analyser ñepp

Euh, rapport à bi 27 maisons et pas des moindres des immeubles à 8 étages à Mermoz des immeubles à 7 étages à Sacré-Cœur n'est-ce pas hein? une maison à 1 milliard au quartier le plus huppé du Sénégal les Almadies c'est pas n'importe qui qui habite aux Almadies il y a des ambassades il y a des mais c'est le quartier le plus le plus hein, hein, huppé du Sénégal, une maison en bordure de mer, n'est-ce pas Un badolo, Kanyam Sivol, n'est-ce pas Qui quitte son village, qui quitte, qui quitte euh, n'est-ce pas euh, euh, Son métier d'apprenti, on, lui prête que dans le passé, il était un apprenti, n'est-ce pas Un badolo d'Anyam Sivol, n'est-ce pas Qui du jour au lendemain quitte son métier de berger, n'est-ce pas dans les, dans les savanes, je ne sais pas comment, comment l'appeler, euh, euh, dans les terres peu fertiles, n'est-ce pas, Danyam Sivor, pour se retrouver à Dakar avec une maison à 1 milliard. Qui plus est, qui plus est, il a encore quatre maisons. Comble, comble, n'est-ce pas, de, du scandale. Il a cinq maisons aux amadis Nous, nous, ce ça serait un miracle si chacun de nous peut se permettre une maison, une modeste maison aux Almadies, ça, ça peut relever du miracle. Parce que les terrains sont à 200 millions, etc. xam nga benn Almadies rek nga am fa 5. vraiment c'est c'est c'est extraordinaire man au ko gis ma ne Sénégal ni ay Idemoulin, lañ bu ñu jógee di Idemoulin, bu ñu jógee dem ci Idemoulin, yi di jël ay addiye di leen jox sëriñ yi di ko nangu lépp riba la xaalis bi ni lekk deret la ñii ay dëmm lañu ah une di protéger sénégalais son. sonn xale yoo ne musuñu liggéey am fi sama benn abonné 38 ans j'ai 38 ans je n'ai jamais travaillé j'ai pas de femme j'ai pas de travail j'ai pas de femme et je veux une femme Je ah, nga gis sama benn abonné ma 200 francs lay reere chaque jour 200 francs kenn ki ñëw ne ko 200 man de 150 lay 100 francs meew 100 francs mburu ah kër yu bëri toggatuñu reer fonde n'est-ce pas, les des étudiants qui, pour, qui ont, n'est-ce pas, euh, euh, euh, des dates, dates, standardement, pour dîner. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire le degré de pauvreté au Sénégal. N'est-ce pas Où tout est vendu au, détail. N'est-ce pas il y, a, il y, a, une sorte de compétition. Les gens se creusent la tête. N'est-ce pas Remuent leur cerveau, activent leur cerveau pour trouver d'autres astuces, d'autres choses à vendre, de nouveaux métiers. Vendre euh, une dentifrice, la dentifrice au détail. Vendre le nuluk, <laughs> en français. Vendre du look au détail. Mais c'est extraordinaire. Carapit, 50 francs. Café tout bas. di ay ay ay marchand ambulant casque

di défendre Farba Ngom parce que ñoom li leen neex mooy ne benn tukkuleur rek nekk président seen ñu nekk ci racisme moo baaxul Amérique looloo fi am Amérique looloo fi am da ngay gis état bu West Virginie c'est l'état le plus pauvre des États-Unis West Virginia is the poorest state in the United States but it's a white state you have a lot of white people there but those people they never vote for Democrats. Most of them, they vote for, for Trump. West uh, Virginia ah ay blanc ñoo fa dëkk blanc yu gën a pauvre waaye terewul dee rek Trump rek la ñuy te xam nañ ne Trump deful leen gat mais ñoom nañ nekk blanc comme Trump raciste la comme Trump raciste la te mi ngi dàq noir yi ak étranger yi ñoom lool rek doy na leen ñoom nañu dee bay dañu dee xiif nañu dee xiif mais bu nañu am président bu raciste dafa am ay tukulóor yo xamné non lañu la mel ñu ngi ñu ngi ñu ngi añam si ñu ngi ndulu bi nga ñu ngi mais gat amuñu ko ndoxu ndoxu dex bi la ñuy Californie wané na ko Californie wané na ñu nekk ci booru dex bi di gas di nan amna fuñu mais ñom ba tay ba dañu

daf leen di rey waaw Farba Ngom vraiment Farba Ngom kenn waru ko bàyyi mais da xool léegi ñu fàtt ko léegi ñu fàtt ko jàll ci leneen di ma wax ay passeport diplomatique ak di ma wax ay simon mais lan moo tax caat génn doo leen wax ne dafa tombé waat caat kan la génn démb bërki démb def ma vidéo di dal caat naan ana waaye na maan lu tax ñu ne kilifa lu tax man rek maa fi nekk bërki démb attaqué wu ma leen fi attaque bu metti démba ci ak génn dañ may déglu wala dafay tombe dama leen di laaj attaque mo fii laa taxaw fii daggaat naa ko sax dugal ko tey laa ko mujj dugalaat xaw ma tey daggaat naa vidéo bi dugal ko tey xaw ma dégg si ñoom fii xasleen ba ñu rap rappeur kii activiste ma ne leen doo leen ma leen fii benn guerrier moo fi am ña muy Guy Marius Sagna beneen guerrier muy Sonko beneen guerrier muy muy kilifa te ñooñu booy xal ay doomu Casamance la en train de ak Clédor ak sommes bi ak Pape mais ñi ci des ñep lan lañ fi def ay kalam xum xax lañ fi def de fi gàtt lu dul nekk ci du di tepp di dal ko ci régime Macky Sall ñom Abdoulaye Wade lañu mais Macky Sall dafa ñew ñep parce que Abdoulaye Wade soxorul Abdoulaye Wade démocrate mais nous, nous gis né Macky Sall dafa sadique Nous, tax nous ay lañu dañu daw kenn xexu fi man mënuma comprendre ñu japp kilifa japp ciment ngeen dem laqatu du waa Y'en a marre kenn gisu sax limu def démb tanena parce que daf na un discours bo xamné vraiment un discours vatanguer ëpp baax na ci laq bu tam tang xawma ndax dafa tomber xawma tomber wala en tout cas man attaquer na la dama la attaquer su suba nga génn ci vidéo xeyna dafa tomber mais lan mo lu nga xaar ba léegi do nga def génn vidéo boobu vidéo bañ jappé Simon kilifa ci saa si nga waroon def vidéo boobu mais nga bàyyi leen un mois ñu ngi nii ci ci ci ci kii bi ci prison bi di jooy sonn Macky Sall di leen briser mais ba tey ba tey Thiat vraiment je suis de lui surtout fin bi vraiment boo déglu vidéo bi boo nekkee Macky sal nga déglu vidéo Thiat di nga tiit di nga tiit parce que vraiment Thiat non man temps yi maa ko doon attaqué premier parti bi sax dafa xawoon nooy nooyul sax mais deuxième partie vidéo surtout pour ñu wax ay waxu Bougane ak député yi di nga leen atte leen gars rapidement affaire yooyu vraiment ñun lii la ñuy xaar ba pare chat, attaqué justice lu tax jàppuñu ko Thiat dafa ne seen justice bi. bu yóbboo ngeen peinture ko marron beige loolu la Guiri gris Sagna loolu la wax gendarmerie ba ñu jàpp ko justice que institution la justice institution la chat nee na justice bu yeboo ngeen peinture ko marron beige mais li la ñuy xaar te chat boo xolé kanam bi détermination bi décor bi mu jël euh euh, euh Simon teg nii jël kilifa technique mais ñun li la ñuy xaar ci yéen ba pare mu attaqué Mahmoud Saleh bu fi wax waxu 3e mandat est-ce que yaa may dégg vraiment chapalé Bougane ne Sen TV kenn du ko laal kenn du laal Sen TV mais nak il faut joindre les marches au discours les discours à eux seuls ne suffisent pas parce que Macky Sall, il est habitué au discours. Macky Sall, tout ce qu'il redoute, c'est la confrontation. Il n'aime pas voir les gens sortir. Mais nak Ngour buy tas mom Ngour buy jeex dafa melni sama bu tas cheikh ça part dans tous les sens <laughs> maa lire euh, Ahmed Aïdara a def rubis de presse ça part dans tous les sens Ngour bu mooy nguur Macky Sall da ngay dégg Mahmoud Sall ñëw def benn benn benn bêtise ba yaa xam bay génn di ko dal yaa xam bay nee naa leen guerrier la yaa xam vraiment man maa ngi koy commencé estimer ku dérapé ci APR mooy génn dal sa kaw waaw yaa xam vraiment man lii laa bëgg am na yaa xam continuer rek continuer lii moom boo koy continuer Macky Sall bu daanoo yow kenn du laal parce que yaa ngi wax dëgg mu génn mu dal ci Mahmoud Sall mais Mahmoud Sall kan moo la wax loo yow mu ne ko yow yaay nekk directeur cabinet président de la république nga génn di wax naan troisième mandat day am loolu la wax ma yaa xam ne ne man moom ci boppam moo jëkkati téléphone am woo Macky sàll ne ko Mahmoud Saleh nii yow yaa ne woon bu kenn wax wax troisième mandat bu génn di wax wax troisième mandat bu ñu gagné élection yi yëngal dëkk bi Macky sàll ne ko ah yaa xam ne ne yaa Macky Sall yóbbu ko loolu la yaa xam ma xaw ma ndax dëgg la dëgg pour man dëgg nee na Macky Sall yóbbu Macky Sall yu Macky Sall waru ko yëg Macky Sall waru ko yëg parce que loolu arrangé wul Macky Sall waaw yaa xam il cherche la sympathie dina ko am nag bu fekkee ne yaa xam dafa xam ne Macky Sall dafa jeexal mu bëgg ñëw na ñëw juboo nag Guy Marius Sagna mi ngi wax dëgg dal na fi Mansour fay wax ko ne war woon jël corrompre euh, euh, euh, Fatoumata Fouta Tamp ñun lii la ñu xam ñu nekk APR am pit ñu mel ne El Hadj Thiam El Hadj Thiam la tudd mooy docteur bi nekk Euh, euh, euh, Dantec moo fi waxoon mu ne xaalis Covid bi dañ ko caxat caxate caxat caxate dañ ko politiqué yaa xam mbay nee ba mu woowee Macky Sall Macky Sall dafa tiit dafa tiit dafa waaru parce que max Mahmoud Saleh lu mu wax ba pare yaa xam dégg naa dalaa la ne saay mam booy mam kii mam mam mam mbay ñaan mam mbay ñaan nee na Macky Sall mi ngi koy jàppale xaw ma ci affaire mairie yaa xam ne du dëgg

Macky Sall xaalis bi mu lay may ci suuf doy la Farba Ngom nga jël xaalis bi di jënd ay suuf di nangu suuf jàmbur mais Farba Ngom nee naa leen yoo am na am na ñu ko euh, porte plainte dafa bëgg nangu seen suuf dafa tiit suuf man seetaan naa ko côté Yoff la xaw ma côté Wakaam man du ma fàtte dafa tiit suuf vingt-sept maison nan la ko nit mën a amee ñaar fukk ak juróom-ñaari kër nan la ko benn nit mën a amee nan la benn nit amee fukki terrain te loo rek a feeñ ak bii rek jënd nga ci ñetti auto yo xamné ne million millions lolu nan la ko benn nit député député c'est le représentant du peuple un député doit être élu pour n'est-ce pas s'occuper des euh, euh, euh, de la population de de de de sa commune n'est-ce pas pour comment dirais-je enrichir pour éduquer pour défendre les intérêts de sa commune mais un député le bon salaire est beaucoup bëggatu ko un million trois cent yi ko parce que il il il il euh, deal euh, par milliards n'est-ce pas dans des dans des histoires sordides ténébreuses des deals vraiment mafieux parce que lui, ku de du mafia ku de du mafia lan est mafia benn nit rek am juróom-ñaari kër far ba Ngom duñ la may dara 47 minutes may wax ci yow duñ la may dara Farba Ngom billaay barke laay war ngaa tiit tiit nga de lu ko fi jaar léegi milliards yi dootul saf dara parce que instant yi da ngaa tiit fii ak 2024 di nga jéem a jaay kër yëpp fii ak 2024 lépp dina ko jéem a jaay parce que dafa feeñ lii nag dina tax au moins bu amee jom dina bàyyi lu muy def waaye gis nga amna yo xamné boko tamé do sax bàyyi fu mu nekk bu ñu noppee un mois 2 mois amna na yeneen diil yoo xam ne koy waaj conclure buñu noppé da koy conclure mais lan mo tax Macky Sall ban loolu moma jaxal lan mo tax Macky Sall wax li def of nag kon axena tol limu wax deug la Macky Sall dakaa mere Macky Sall dakaa mere lan la def Macky Sall ba Macky Sall mere ko ah Macky Sall nag il n'a plus sa tête Macky Sall am tuuti rek sogoom ndax bu démé bay weejo géwalam sacrifier géwélam te xam na ne bu daanoo dafa mel ne moom moo daanu ndax Farba li mu li mu xam yëpp dañ ne gars yi dañ ne Macky Sall ci Macky Sall la ko ji la ko la ko jànge waaw ci Macky Sall la ko jànge axari itam nee na ñaari sàcc bu ñu duggee ci banque bu ñuy dem ci banque di sàcc lépp nice axana ton ba ñuy préparé coup bi lépp nice ba ñu duggee ci banque bi li ñu waxante woon man maay man maay jàpp garde bi yow yaay dem ci coffre ba lépp nice waaye bu sa ci génnee banque ba ba dem war a séddoo foofu la jikkoo do jikkoo baadoola bi génn ñu commencé nag di reyante di lekkante seen biir Akhenaton loolu la wax fi nekk nii Macky Sall Farba Ngom daf ko nax waaw daf ko nax man de waa rapport bi dëgg la <laughs> man mënu ma gëm ne <laughs> mënu ma gëm ne rapport bi dëgg xanaa léegi ñu génn ne rapport dafa am naa boobu fekk la

parce que Farba il faut jox ko il faut que ñu may ko une de temps parce que yow da ngaa war Sénégal da ngaa war yàlla dangaa war sa diine dangaa ngaa war waa Fouta waa Fouta amuñu amuñu forage waa Fouta amuñu ndox waa Fouta amuñu hôpital amuñu dara dama gis couleur bi ñëw di jéem a défendre di jéem a dal ci ci Macky ba mu ma ne foo dëkk mu ne ma xaw ma lan Amadou rek sooge xaw ma sax partenaire sax fu mu wax ne la dëkk mu ne Matam ma ne ko ba nga am ah, est-ce que am nga hôpital bugguma tontu am ngeen hôpital bugguma toon mu naan ay ñun immigré ñun ñooy xeexal suñu bopp dugg na fii génn fii Macky Sall dafa lu leen gat ba pare ngeen koy défendre lu tax parce que xalpulaar gënu leen ñu nekk xalpulaar man am naa doom xalpulaar bàyyi leen seen yëfu naafeq yi ngeen di def de toute façon Macky jeexal na gëm leen yàlla Macky day dem Pender Ba li mu waxoon du am tukulóor ñoo fi ne wolof doo fi nekk président séeréer doo fi nekk président joolaa doo fi nekk président loolu Pender Ba moo ko wax waaw xëy na na dëggal boppam mu ñëw Sénégal wax ñu jéem a xeex loolu ba xam Macky Sall il est fini sabar bu tas la moo tax xoolal waxuma leen ko fi woon daaw ci affaire événement mars yi ba mu jeexee waxuma leen Macky Sall dootul am jàmm fii ba 2024 man Mister Shake lu ma leen wax rek bind leen ko téere lii ngeen gis du dara scandale yi ngeen gis billahi wallahi taala du dara nañu dem rek parce qu'il y a tellement de frustrés

Macky Sall boo la gën a xam ne bu ne defuma troisième mandat <laughs> boobu nag sabaru dof bu tas lay doon xam nga dañ ne nguur nguur buy jeex sabar bu tas la makki sàll bu ne defuma troisième mandat sabaru dof bu bu tas lay doon parce que bu boobaa nag di nga gis nag waa APR nag ku nekk nag di jéem a defarwaat parce que dañ naan kii Macky dem na kon xaaral ma jéem a dem bokk ci Sonko wala xaaral ma def lii ah wóorul comme Macky day dem eh léegi la lolo tax Macky Sall bëggul wax ne du def troisième mandat mais Macky mo la gën xam ni du def troisième mandat mo la ko gën xam boko ko 100 mom day japp ne peut-être 10 amna 10 chance def troisième mandat mais 90 Macky Sall mo la gën xam ne bëggul te mënul def troisième mandat mais bu waxee ne du def troisième mandat gis ngeen scandale yi règlement de compte il faut le commencer déjà Cissé Lo dégg ngeen li ko li ko kii waxal li ko nit dof li ko kii waxal dof nday dégg ngeen li dof nday wax Cissé moo ko joxoon ay ay armes waaw Cissé moo ko jox fital daaw ci élection yi ngir bu ñu ñëwee Grand Yoff ku leen fa ndara sonnal ñu ñu jàmbaarloog yow dof nday nee na ay milliards ay millions lañ ko jox jox ko fital jox ko lépp bu jël millions yi xale yi ñii dix mille ñii dix mille mu ne yéen a

ndax lan parce que Mame diaw Diao yëfu dof la def djel photom diko taf ci ay cahier lolo Macky Sall fi nek nekk da leen mere da leen jéppi xam nga ni Mame diaw bu démé ba Macky Sall dindi ko nga xamné parce que yëfu dof la def néna Fatou moo tax xaw ma la ne beneen beneen tamit djel photom taf ko ci ay sac parce que dañu am xaliss ba xamatu ñu ci def ils sont devenus tellement arrogants que Mahmoud Saleh day génn sax di wax dañuy def troisième mandat sabar bu tass lay doon armée mexicaine xam la moy armée mexicaine ku nek yaay sa chef bopp soldat bu nek yaay sa chef bopp ku nek sa intérêt ngay def Macky dafa mous bu waxee du def 3e mandat wax na dëgg APR waxul ne ni dañuy liggéey du affaire liggéey de APR ci boppam mooy tas ñu bëri dinañ commencé djema dem ci Sonko etc parce que xam na ne Macky Sall bu présenté wul kan moy ga APR fa lay jaar ba gagné élection Macky Sall bu présenté wul kan ñom amuñu sax numéro 2 fat amuñu numéro 2 Macky dafa muus yéen nag makki dina leen sacrifier yéen ñëpp dafa am ni gars yu ci muus nag ñooñu ñooy commencé nag di génne secret parce que dégg naa Siré Dia ak euh, euh, euh, saa yi jubóowuñu loolu Akhenaton defe naa moo ko wax moom ak Farba Ngom moom moom yàqu na Farba Ngom yàqu na waaw parce que parce gis nga Mamour Diallo ñu ñu ñu ni waa Pastef gëmee ne Mamour Diallo ken munu ko seetal Farba Ngom momit yakuna yàqu na waaw te mom boy xol Mamour Diallo sax waxa tane Mamour Diallo ko tane fouf ndax Mamour Diallo dañ koy tuddal rek 94 milliards mais ki dañ ka génne rapport sa yu len génnee di mo wax nan rapport ah, nak dafa génne rapport ci Mamour Diallo néna len man rapport boobu gisuma ko na ci xalat TV def na ci xalat TV def euh, euh, euh, vidéo comme vous bu Farba Ngom na ci xalaat ci bi def vidéo man gisuma rapport OFNAC bu ci 94 milliards yi bu wax ne 80 euh, Mamour Diallo effectivement jël na 94 milliards bu amee lan moo tax mu mënuñu ko génnee comme ni ñu génnee bu Farba Ngom bi gars yi tamit il faut ngeen di utiliser seen xel mais loolu terewul Mamour moom ba illaa yow mi diin waa Pastef dañoo jàpp ne dafa jël 94. man xam naa ne jëlul man xam naa ko waaw xam naa ne jëlul parce que 94 milliards déjà dafa génnagul dafa génnagul loolu yàgg naa ci wax mais tey bu ñu wax waxu 94 milliards nee naa la yooyu amul njëriñ parce que ay 94 milliards yoo xam ne da nga koy dégg rek mais lu lu ne lu ne lu ne fàng kenn du ko jeex Farba Ngom bosam dafa ne fàng ay immeuble gars yi immeuble Almadies am na quatre kër Almadies te boo demee ay immeuble xam nga dégg nga kii naan ma yow da far fan laa far ay immeuble quatre immeuble deux yi Mermoz huit étages man de R plus huit sax <laughs> man de R plus HLM bi ma dëkk defe naa amul R bi ma dëkk gisuma fa R plus huit Mermoz am na fa ñaar Sacré-Cœur ñu ne am na fa ñaari R plus sept ah ma mel am na fa six kër xaw ma mais liste baa ngi nii mais c'est extraordinaire mais ça fait mal au cœur kay mais lii c'est un scandale ay waay bu doon ay bu doon Amérique mais Farba léegi comme ni ñu leen rek léegi ñu fàtte ko jàll ci leneen loolu mooy Sénégal loolu mooy Sénégal élection yi ñëw ngeen gis lii yëpp ngeen di votel APR comme ni leen ko caat waxee Kaolack mu ngi nii APR Fatik, APR Fouta APR jël leen seen responsabilité jël leen seen responsabilité dëkk bi bu yàqoo yéenay perte yéen ñi fa nekk les jeunes là yéenay perte mais nag il faut que mafia kàccat bi bàyyi seen seen émission yu ñàkk fayda yi ñuy def xam nga ñu géndee xaalisu APR nañu song seen poche merci Xalaat TV merci Ofnac xamuñu kan moo fuité rapport bi kooku ñu ngi koy gërëm di ko sant est-ce que Macky Sall moo wax ñu def rapport bi bu dee Macky Sall moo ko def ñu ngi koy gërëm <laughs> ah loolu lu baax la de Macky Sall bu defee lu baax dañ koy wax bu dee Macky ci boppam moo ne sama géwal génne leen ma rapport gars yi la ñu waxante dëgg Sall bu ko defee dafa baax ci moom loolu lu baax la ci moom sa géwal añam suvol kok nga xamne ne moo fouta ñu dem ci ay election nga ne gennel ma euh, yow bu len ñu sonal ak da nga far ci Mamour Diallo bu len ma sonal dama far ci Mamour Diallo lima ma wax def len ko lima ma la wax def ko xam naa li ma a bañ moy ma ñew fi di def sama vidéo ngeen tek ma kat man duma fen kat man bo boo suivre wer bi di nga xamne gaay sax dañ may suivre parce que lima wax fi yépp mo am

dama ne génne ma rapport OFNAC dañ koy rek rapport OFNAC rapport OFNAC da ngeen war politique des fois da ngay attaqué gis nga politique boo ci nekkee da ngay attaqué a def pour pour koy def eh, rapport IGE Eh, am na lii am mais Sonko bu ko neexee mu wax lu ko parce que politique moo mel noonu mais nag boo amee dara koy surtout ci affaire élection bu Farba Ngom bi lu tax daan moo ci woon wax man Farba Ngom musuma musu leen ma dégg ma naan këram lii këram laa parce que xaw ma cent cinquante millions yi dafa leeroon moo tax ma ciy wax waaye lu ne fàng moom boo ma ko génnelee ma defal la ci émission une heure de temps une heure temps ngi nii may wax ci Farba Ngom même temps wàccul loolu laa bëgg génne leen ma rapport rapport yëpp muy 94 milliards muy muy muy muy muy euh, euh, euh, beneen bi beneen bi nan la tudd bu bu bu Mame Niang bi Prodac génne leen ma ko yu université yi génne leen ma rapport yi génne leen ko boo ci génne ma def ci émission bu leer mais Mamour Diallo 94 milliards yi laa koy défendre sama xarit la maam kay su mu ko doon défendre xam fa laa koy défendre ci beneen dossier bi gën a garaaw laa koy défendre muy dossier Adji Sarr

waa ji def naa gam yi la tudd ah soow xaw ma lan soow la sant am moom collaborateur u la collaborateur u Mamour avocat la ba ma déggee moom ci boppam moo wax man toog déggu te waa ji dama ko xam parce que man ma j'ai travaillé ak Mamour Diallo kooku xam naa ko mës nañu toog ni di wax je le connais ba ma gisee mu toog mu ne Adji Sarr moom recevoir na Adji Sarr deux semaines avant problème yi ñuy wax ak Sonko moy viol xamul massage bi suite beauté mom recevoir na adissa lool rek dafa téxal ak lu mu munti dafa téxal té yow kenn laaju la yow ya sa nga génn nga wax kenn la sa responsabilité nga wax ba paré ñu dëgg maître mu ne so bobu so bobu man dafa sax fële boo leen ko xam xam maa ngi leen nii di leen jox loo leen man man dafa naa suma ma juumul gab yi laa ko gab ñu ne moo takk rakku Mamour Diallo xaw ma magu ma rakku Mamour Diallo bu jigéen kon gorom la ba pare nekk collaborateur am ñuy liggéey xam nga kooku bu génnee wax loolu xel yi day teey ñu ne ah kon est-ce que Mamour Diallo yónni wu ko waaw man nekk ma fi di ko jéem a ci loolu man du ma naa feeq su ma doon défendre Mamour Diallo foofu laay defar dama naan wow oh, non non non c'est-à-dire Gavi boobu xëy na xëy na moom moo jël li muy def mu def ko ah mais man dama jël sama téléphone ma dem WhatsApp ma laaj Mamour parce que tamit Mamour sama xarit la su ma déggee yéen nii damay tiit te damay bëgg su ma ko mënee jàppale ma jàppale ko ci daa jël sama téléphone ma bàyyil ko message ma ne ko Mamour ah man daal li ma dégg sa goro bi sa waa ji wax Gabi la xaw ma waaw loolu nu mu demee noonu. du mu demee noonu parce que Adji Sarr lan lay def foofu xam nga ma ne ko ah Mamour bu dee bu dee da ci dugal sa loxo def nga erreur def nga erreur parce que vraiment affaire fayantu man xamewuma la fayantu man jullite laa la xamee lii laa xamee mais xam nga Mamour ba léegi kenn prouvé wul kenn prouvé wul ne moom moo yónni Gabi soo boobu kenn prouvé wul te Gabi waxul ne dafa wax Adji Sarr demal Sweet Beauté Si dafa génn mu weddi plainte d'ailleurs je porte une plainte sax euh, euh, euh, ndaw si ma tudd léegi porté na plainte au niveau des des des avocats ndaw si tamit Dior je moo porte plainte moom it porte plainte Mamour loolu laa wax man aw man erreur damay comprendre ma duma ko xalab xamna lu nit ku bax la yeen xamul len ko di questionné sama xarit mais man sama dina jël sama nit may jël sama dom, ma koy tuddee nit nit ku doyuma ah ma liggéey ak mom 1 an bala nga xam sa way da ngay dem ba kërëm dem luga dégg li dëkkandoo yi man sama man youtubeur la ci koñ bi la dugg jël sama sama téléphone filmé di laaj nit ñi ñu may wax limu def ak limu def juma mom juma bobu nek jakarlo seen keur sax mom moko moko tabax papa moko tabax papa moy iliman bi fofu lolou Mamour wax mako billahi wallahi taala dama yew dem di di nani café ci maire bi ñaan café après ci lañu la laaj xanaa yéen Dakar nga ma waaw ñun de Mamour Diallo lañ fi indi ci lañu def témoignage bi ñu ne ma pap gis nga juma joju papa sax moko ko tabax te pourtant Mamour ma ngi ci keur waxuma ko sax waxuma dara li def ñu yobuma ba ci wañ ba ma ma jël sama téléphone ñu yóbbu ma ba ci jumaa ji ñu woon ñu ne ma xaaral ci ginnaaw am na waañ ma dem gis ñu fay teg ay manar ñu ne Mamour saa yu ñëwee koñ bi kenn du togg billaahi wallaahi taala waa koñ bi Mamour Diallo bu ñëwee xam moom lu Dakar la nekk mais bu ñëwee Louga koñ bi kenn du togg ay mana yu doy ceeb yu garaaw lañuy ñuy togg ceeb ceebu ginaar tout taalibe yi dañuy dañ fay fees dell këram Mamour dafa jaar daara man loolu laa gis man la man intérêt la am di fen Mamour jàll musul toog ne ma Sonko lii Sonko laa billaahi wallaahi wa taalaahi musuma toog ne ma booy jëlal defal ma Sonko vidéo nga attaqué ko wala nga def lii nga def laa billaahi wallaahi taala yéen xamu leen nit ki waxuma nag ne du juum waxuma ne du juum parce que tamit li ko Sonko def metti na ko metti na ko parce que Sonko moo tax Macky Sall dàq ko 94 bu dee nag loolu moo tax nit dugal ko ci affaire Adji Sarr bu dee loolu tax muy jéem a fayu mën naa ko comprendre waaye def na erreur bu mag ndax affaire Adji Sarr bi 14 morts moo ci am ñu lakk ci ay kër moom sax këram taal lañ ko ci bëgg songaat këram ba ñu bëggaatee songu këram. waa koñ bi ñoo génn dem leen dem leen YouTube ngeen bind la maison de Mamour Diallo attaqué ngeen xool la ngeen di gis. ñaari vidéo ngeen di gis wala ñett am na boo xam ne mooy bi ñu jëkk taal këram mais beneen bi ba gars yi di génn waa koñ bi ñoo doon sànnante xeer gars yi ñëwaatoon pour taalaat kër gi après ñoom dañu mujj daw mais Mamour Diallo mais maître El Hadj ba ñuy taal këram kenn défendre ko xamul tax défendre ñu parce que gars yi nee nañu maître day ñëw du leen sax nuyu billahi wallahi taala ah, cest à xam man dama leen ëpp jot ba pare youtubeur la man lu ma gis dama koy seetaan am na ko bind mu ne ma Mister Shake du fàtte <laughs> dinaa dinaa fàtte détails yi mais yenn événement yi du ma ko fàtte lu tax maître Diouf bu ñu ba ñuy taal këram Maris kenn jàppale wu ko ci fin bi sax lañ ko yërëm gars yi nee nañ bu ñu bu ko yërëmul woon sax kër gi dina takk ba jeex ci fin bi mais nee nañ waa ji waa ji nettali nee na nii la ñuy rombe nii duñu sax nuyu te pourtant fi jógee di wax man naa avocat du peuple patati patata ñii la ñuy rombee te pourtant man mii man maa fay lakk ji ak xaw ma kan ak kan ak mais Mamour Diallo ba ñuy jéem a song kër waa koñ bi dañ ne dee doolu ko laaj man damaa dem Louga dem naa fa deux fois dem naa Tiwaawan kër bi muy am foofu gàmmu mu invité ma gàmmu ma gis berne yi muy def bàyyi leen nag bu nit di rey ay nag nag di jox nit ñi di lekk togg ay ginaar ah teral ay nit ngeen ne 94 milliards yi la Mamour jàllo c'est un cadre jàngale mbën man mag moom ñoo bokkoon classe de seconde à terminale maa doon jël premier Mamour Diallo moo doon jël deuxième lycée Pétavin Saint-Louis lycée Pétavin Saint-Louis Mamour Diallo deuxième semestre bac sax moo ma raw pour vous dire deuxième parce que dafa aayoon mat ay économie moo tax nag après ci la dem def concours man ma dem université moom dafa teel def concours nekk contrôleur man youtubeur laa mu nettali ma lépp ma togg ak papay Mamour Diallo mu nekk ci jumaa bi di xutba yàlla la doon wax waxu yàlla waxu yonent ba tudd sax sama maam billaahi xaali Amar Fall sama maam la pire bi ngeen di dégg papay Mamour Diallo billaahi wallaahi taalaahi vidéo bi mu ngi fi boo leen bëggee mën naa la ko génn parce que dama doon filmer Papa Mamour Diallo tok ba tuddu sama mam khali Amar Fall gay man bugg sama affaire kan mo sanc Pire ku sanc Amar Fall sama yaay Coro Fall la man sax sama papa bala muy génn aduna bëgg na ko lajjat ba mu wax ma man ci descendant boobu la bok billahi wallahi taala sama ben mam deug na nekkoon na pir ay at mu diriger diwah Mamour Diallo di wax di wax ba jaar sama tuddu maam xaali amaat Fall ñun ñëpp am nañ fi ay maamu man jëmuma fi man du ma fi nekk di tiitam parce que xaali Amath Fall c'est pas parce sama maam la que man tamit damaa baax comprendre mais dama la bëgg expliquer rek Mamour papam jumaa ji moo doon moo jiite après du xutba mais man loolu laa gis si famille boobu famille bu mën a teral nit Mamour Diallo dafa baax bi nit ku baax la non bëgguma sax jooy quoi man Mamour Diallo lan dafa mën defal dara mënu ma defal tous ñëw di fen mais dem nit ku baax la billaahi wallaahi taalaahi man dama gis lu mu def Louga xool leen xool leen jigéen ñi da leen di defal consultation gratuite cancer du sein mais bu ko ah dañ ne dama sàcc 94 milliards naa def ni Farba dem jënd 27 millions mais man loolu laa gis man li ma gis laa wax gis naa ay jigéen yoo xam ne Mamour moo leen defal cancer gratuit consultation gratuite ñu xool seen ween ku ci am non waaw cancer du sein ak de l'utérus seen jurukaay ñu xool ko am na ci jigéen yoo xam ne dañ ko teel a xam dañ ko teel a détecté ñu faj leen bu duloon Mamour Diallo dañuy dee comprendre bu dul woon Mamour Diallo man sama maam mais xaale Ami Fall dañ ne jumaa bi ñu njëkk tabax Sénégal duñ ne xaale Ami Fall moo ko tax moo ko tabax pire déggu leen Iba Der Thiam di wax ay université yi tubaab ba ñëwee xaw ma dañoo gas xaw ma suul téere yeeg yooyu sama maam la billahi wallahi taala te papay Mamour Diallo jour boobu dafa raconté ba tudd sax benn sama benn maam bu tudd Mamour Mamour xaw ma lan ba ma naan Mamour Diallo kon yow yow yow maag yow xëy na lii moo tax li moo tax nekk te am naa sax maam bu tudd Mamour billaahi dafa baax li mu def ak li mu deful sama yoon nekku ci 94 milliards def na deful man de li ma jot a étudier gisuma lu mu def d'autant plus que ñaari milliards rek a jot a génn te loolu xanaa Pape Alé Niang bu ko waxee di ngeen ko gëm man da daa ñëw fii di leen fen billaahi wallaahi wa taalaahi Pape Alé Niang toog naag Ousmane Sonko 2STV mu ne Ousmane Sonko yow nee nga 94 milliards la ñu sàcc mais mu nekkoo ko 2 rek génn 2 milliards rek jot a gum génn te 2 milliards yi kii lañ ko jox euh, euh, Tayrou Sarr Sonko ne ko wax nga dëgg waaye même bu dee fukki dërëm sax la ñu sàcc sàcc la man foofu laay waxee xëy na Sonko dafa gis benn deal boo xam ne gars yi mën nañ si sàcc 94 milliards mu arrêté deal bi loolu sax boo leen ko waxee man dinaa ko gëm.

maa ngi nii di ko défendre ba léegi li ma ko defal defaluma ko tudde naa ko doom liggéeyal naa ko ci politique jàppale ko ba ma waree génn mën ne ko Mamour bàyyi bu ma déglu woon lii du ko ci fekk parce que ba ma bàyyee 2019 jallo Diallo 2019 ba mu jeexee Macky Sall dama ko liggéeyal 2017 ba 2019 ñu ma naan da nga far faruma waa APR faruma waaw waaw Aliou Wade du la sax zappé dama laa bëgg zappé mais du ma la zappé parce que yaa ma permettre may wax li gis nga 2017 ba 2019 man weddiwu ma ngaa kalaawoon comme yéen Macky sàll ñun ñëpp daf ñoo nax yéen ñi ko votel 2012 daf leen nax kan moo xamoon ne Macky sàll bu ñëwee nii lay def di bàyyi ay Farba Ngom di am ay vingt 27 kër kan moo xamoon ne Macky sàll bu ñëwee day jël tukkuleer yëpp teg fi consulat yi ministère yi yëpp. kan moo xamoon ne Macky Sall bu ñëwee day tëj day tëj nit ñi Kali Khalifa Sall Sonko ak jéem a tëj Sonko ak ak ak l'autre Karim Wade kenn xamu ko parce que neex sedd rey la man tamit noonu la ma naxee 2022 2012 man xuloon naag ci ci nit ku ma jege. billaahi dama nekk fi laa nekk New York ma ne ko votelal Ablaye Wade billaahi wallaahi taalaahi boo votelul ak Ablaye Wade. Je la nit kooku fen nit ki mais après la mu wax ne non non faralu moon votalu moon Ablaye Wade dama ko ci man mo won Macky Sall 2012 mais comme la majorité des sénégalais 65 pour te man Amérique la nek te yalla xam Je ne sax politique taxone bëgguma parce que man dama ne Ablaye Wade man gis ma lu ko troisième mandat bi sax waaw mané dal? ablay wad dal man nim ko xamé pan africain bëggul xaaliss du sacc la Ablaye Wade da ngi président amul sax kër almadi dañ ko abal kër instant bi kër bu ndëkk dañ ko abal mu bëgg abal Alpha Condé ablay wad amul sax kër saway am 27 kër ablay wad xam fa lam kër fan résidence point ak xawma fan té benen kër gi daf ko ay mindanam la ko may ñetti kër la amoon ñetti kër fendre résidence point E te yooyu salaire u avocat moo ko ko avant muy nekk président amoon na kër point E bi xam nga fan bi loolu taxoon ma ne man Abdoulaye Wade laay voté Abdoulaye Wade laa bëggoon 2016 ba ma ñëwee 65 pour cent yéen a ko voté nit ma jënd cantine ci benn nit defal ko promotion bu baax marché HLM 5 mu ne ma yow ku mën a wax nga parce que sama cantine bi kenn jëlu ko woon marché HLM. yow nga jël ko indi sa musique yore sa micro nit ñi di ñëw léegi sama yeneen cantine sax nit ñaa ngi fi ñëw yow ku mën a politique nga est-ce que doo ñëw jàppale ma Macky Sall benn Haalpulaar bu doon liggéey benn ministre mu wax ma ko ma ne ko man loolu ma dugal ci politique billahi wallahi taala mu ne ma est-ce que doo ñëw jàppale ma ne ko non mais une semaine après laa ne mais pourquoi pas parce que pour man Macky mi ngi liggéey dama ñëw gis ay terre gis ay jam ñaajo 2016 kan moom xamoon ne wala 2017 kan moo xamoon ne terre bi du daw kan moo ko xamoon man de xaw ma ko woon looloo looloo mu ci dugal waaye 2019 Mamour Diallo ma jàppale ko mu gagné mu defar parrainage 45000 gagné législative Macky Sall bàyyi ba élection yi jeex rek mu rëq ndiggam mu dàqu ko mu dàqu ko gars yi di toog di xaar eh Mamour de xam naa dinañ ko nommewaat lii dinañ ko nommewaat lii conseil ministre yi di ñëw di dem di ñëw di dem 2019 di ñew di dem Mamour Diallo ken nomé wu ko dara ci la ne ko nak Mamour man bayina parce que Mamour Macky Sall la traiteur la billahi wallahi taala man ko Mamour man bayina naa te yow ma ngi lay diggal nga baye Macky Sall mais bëggul baye Macky Sall parce que bon parce que mom je sais pas politicien la dafa bëgg nek maire Louga mu mu gëm rek liko makki wax parce que makki dana la Mamour bu yakamti dinaa la jox li dina jox la Macky Sall la def Abdoulaye Balde Abdoulaye Balde yaay maire Ziguinchor transhumant nga bul wax dara amul problème Balde dinaa la jox Ziguinchor Abdoulaye Balde toog di dundee yakar di dundee yakar Abdoulaye Balde mu sacrifier sa carrière Macky Sall dafa sacrifier sa carrière xaar ba au dernier moment Abdoulaye Balde mu rek sa ndig Macky nu mu trahiré Abdoulaye Balde noonu la trahiré Mamour Diallo ndax Mamour Diallo ba mu porté plainte Macky Sall warul won plainte Mamour Diallo D'accord, na nga plainte Sonko comme yéen nee nga agent judiciaire de l'État? mo wara mo wara moo war 94 euh, comme yéen agent judiciaire de l'État? mo wara porter plainte Sonko def plainte am ngeen mais maître la djouf ak Mamour Diallo porté nañ plainte lolou tam erreur la Mamour suma ma du du jël maître El Hadj comme avocat. Al Diouf mom Pastef Pastef dañ mais maam consulté wuma ci lool yépp ma man daf ma ma ci affaire mais comme mom dafa japp né ah d'al? Amérique la mënul politique wala lool mom mom lool la jappone Mamour la mais xamna bu demb doon tay dina ne ah monsieur Cheikh mi sama conseil la woon de waaye daanu ma ko déglu waroon na waroon naa ko def conseil waroon naa ko sax am na nu muy demee sax ma ne ko yow doo dellu Amérique fii ngay toog liggéeyal ma jàppale ma kon bu boobaa affaire Sonko bi du am parce que man affaire Sonko bu ma ko yëgoon bu ma ci nekkoon ma yëg ko dama naan ko bu dugg ci lool nit da gëm yàlla fayantu moo baaxul Sonko yoru sa wërsëg yow am nga sa teraanga am nga say nit liggéey nga li ngay liggéey pendant 30 ans 30 ans tu es un fonctionnaire euh, haute hiérarchie ENA nga génn ba ngay dugg yaa jël P ba ngay dugg yaa ba ngay kii yaa jël 2 Abdoulaye Wade moo la nommé woon directeur des domaines Macky Sall ñëw reconduire la kon yow tu ne dois rien à Macky Sall mais wax ji loolu la léegi nag di nga nekk nit ku baax def ben erreur mu yak sa adduna te Mamour il a payé maamam dee na ci yaayam dee na ci yàlla ci yàlla yërëm

maamu 106 ans dara rey ko mamou 106 ans dara rey ko mais bu toogee dégg youf yi tal nañ kër gi mais loolu tension bi rek mën na ko rey maamu Mamour Diallo gañu ñu yaakaar na yëf yi jeex na une semaine après yaayu Mamour Diallo gaañu yaay jitam tam la moo ko yow sa yaay dund na 106 ans dara reyu événement yi ñëw mu dee yow tamit est-ce que du nakar bobu ak tiit pour sa dom parce que tension baaxul surtout nag ci mag kon Mamour il a assez payé il a assez payé comprendre waaw léegi nag affaire Adji Sarr bi bu fekkee ne moom daf ci vraiment ce serait très dommage comme Gabi Gabi avocat bi ce serait très dommage mais Lolo, Lolo, du tax mu nekk nit ku bon dafa def benn erreur boo xam ne sëgëm moo ko def ñi ci dugg yëpp bu leen leeroon xam ci ñu si dugg lan moo leen xam nga lan moo leen nax moo tax combine baaxul complot baaxul kep ku ci si dugal sa loxo bo nekkee julit li tax combine baaxul yow ba nga ciy dugg yaa ngi yaakaar ne ah Sonko dal dañ koy japp rek tejj ko affaire yi jeex lolou nga foogoon mais bu la leeroon ne 14 morts dina ci am 500 blessés te jeex ndax deuxième vague bu ñëwee Sénégal mun na yàq mais lolou yep dalay top loolu yëpp da lay topp kon nag képp ku ci laale man li ma lay conseillé mooy nga génn képp ku ci laale li ma lay conseillé mooy nga génn nga baalu ak nga ne ah ah man daal wax dëgg ba ma ciy dugg c'est vrai man maa yónnee aji saar waaye ba mu ciy dugg xalaatu moon ne nit ñi dinañ te man jullit laa maa ngi baalu Sénégalais mais loolu ñu ko ñemee def bariwul sëgamu Rwanda la ñu baal lañu baale

daaneel roplaanam te président boobu juboo rek la bëggoon ndax ñoom ñoom euh, saway président Rwanda mi nu mu tudd wax leen ma man lu tax may fàttali turam chaque rek wax leen ma pour Kagame Kagame rebelle la woon militaire la woon rebelle ci àll bi la nekkoon nekk ay Cameroun wala nekk fii de temps en temps ñu dugg Rwanda xeex ak gars yi gars yi dàq leen ñu daw Amérique maanaam fu sonnoon ci guerre bi mu ne leen ñëw leen ñu juboo ñëw leen ngeen ngeen joxe seen gànnaay ñu juboo waaye ñoom ba ñu ba ñu leen bàyyee ñu dugg li ñu njëkk a def mooy abéri maanaam di daw dugg ci avion di dem ñu daaneel avion ba te ñoom ñoom ñooy minorité ci dëkk ba tutsi si bëriwuñu wutu ñoo leen ëpp ci nag ci nag utu yi ne ne ah bon yore seen rajo ne dem leen rey mbóot yi comme ñoo rey suñu président ñun ñu woo leen ci jàmm ñom ñu ñew li ñëk def moy daane ray suñu président ray leen mbooti ak képp kuy faral mbóot kon ray nañ ay tutsi ray nañ ay utu ndax amna ay utu yo xamne tutsi yi seen dëkkandoo lañ woon seen xarit bu ñu ñew di leen di yema ray dañ leen di laq waye képp ku ñu japp nga laq laq tutsi wala nga fay défendre des fois sax da ngay jox mën nga mën nga bañ sa jokkandoo rek comme yow sa dekkondo ngeen yag am problème nga bëgg sacc kërëm par exemple nga bëgg sacc kërëm nga iñaane ko bu yëf yi tàngee rek nga dem ci ci agresseurs yi ne leen e sama dëkkandoo bi de lakk na ay tutsi pour lan parce que danga nga ko ñu bëri rey nañu ci loolu mais xoolal ñetti téeméeri junni ñu rey xoolal naa ñetti téeméer juróom-ñetti téeméeri junni nit huit cent mille personnes yu ñu rey ci ñetti weer rek man am na am na ci film yu ñuy wane ci tali bi ni gars yi yor jaas yi di di gor billaahi barki la loolu Dakar la ma fekk 97 la woon su ma juumee parce que année boobu ci laa waroon dugg Amérique mais damaa tiit te man maa ngi dakaar de mais j'avais le sang glacé billaahi dakaar laa nekk te pourtant Kagame bu mu jëlee nguur bu mënoon na fayu mais Kagame dafa ne ñëw leen loo leen def wax leen ko ñu baal leen dañ jàpp dugal leen ci ay comme yóbbu leen stade amitié ñu bëri reykatu nit yi dañ leen jàpp teg leen foofu après nak juge yi ku nekk ñu gënal du outal le dossier ñew bu ne lay lan nga tuddu nga ne man ma nga tuddu Moussa Moussa Kagame ñu ne la lan nga def nga ne ah man de reyna samay dëkkandoo famille sept personnes reyna len après ñu andat dem ci benen euh, euh euh quartier fofu tam ray nañ fa 100 personnes man sama bop ah yakar na ni fofu ray na fa 10 di nga gis ben nit rek mën na ray 100 personnes billahi léegi wax ji dafa baax ndax au moins booy wax yaa ngi tuub yaa ngi jébbalu noonu leen leen baale tey Rwanda moom la ñuy wax ne mooy pays bu gën a bokk na ci pays am développement parce que fayantu baaxul kon ñi nekk ci affaire aji Sarr bi tamit bu ñu génnoon ñu baalu mais duñ ko def am na ci ñoo xam dañuy jéem a gën a pousser aji Sarr mel ne maître El Hadj Diouf ñoom du ñu baalu parce que moom boo waxee mu ne waay sama kër lakk ko te yow kër gi du sax sa kër ñu ne ku tudd Ousmane Diédhiou moo ko moom dëkk fii New York sama kër bi ñu lakk waaw non Sonko il va payer non c'est déjà Ka Doudou Ka di ci dugal loxoom ana Doudou Ka waxuma leen woon duñ ko du am tous waxuma leen ko fi woon waxuma leen ko fi woon dégg naa Macky Sall Benoît Sambou la jël ak Sané boobu saane bi nga xam ne Je naa moo yoroon euh, mooy président euh, Casa Sport xam nga loolu tam waxoon naa leen am na benn bu analyse bii man Sénégal set laa ko seetaanee Siré Si la tudd si lii yëpp il y a trois semaines deux semaines Siré Sy waxoon na ko nee na Casamance dara na am problème ndax Abdoulaye am na nu muy demee Macky Sall ko jël te Macky bu waayu Casamance bi la ndara jël Casa Sport te ni mu ko waxee noonu la am c'est vrai que nag jëlul waayu Casa Sport pour pour pour mais li am commune bi la ko jox xaw ma département je am na daal bu ñu ko ci jox waa jooju laa fait une analyse exceptionnelle te mu ne bu boobaa Balde mun na ànd ak Sonko mais Balde du ànd ak Sonko xam nga lu tax du ànd ak Sonko tapet la parce que Macky Sall dafa yor dossier am tapet la maa leen ko fi wax. ne ñu dem ngeen xool ndax Balde dina ànd ak Sonko. gars yi ay tàppet la am ñu fit parce que makki Sall li moo tax nag ñun ñu ñun ñu fonk Sonko parce que Sonko ragalul Macky mais ay Balde yëpp ay tàppet la ñu Macky Sall da leen jekku lan moo tax mu transhumé du dañ ko génneeloon dossier OFNAC xaw ma UGE bu jébbaluwul woon dañ koy tëj nangu xaalisam Macky dafa sadik fi mu nekk ni Balde bu jébbaluwul ah du ànd ak Sonko. du ànd ak Sonko parce que bu ànd ak Sonko Macky Sall mën na bàyyi sax ba élection yi passé am na lu muy demee sax du bàyyi ba élection yi passé buy Balde bu génnee rek ni damay ànd ak Sonko yàqu na loolu moom bu ko defee bu ko defee dina ma jaaxal trop loolu guerrier moo koy def te guerrier yi senegal bëriwul guerrier Sonko la euh, Pape Alé Niang Guy Marius Sagna Xalaat TV ñooñu ñooy guerrier yi mais Bibi Baldé loolu la war a def parce que yow boo amee fit ñu laaj la ndax Macky Sall daf la trahir nga ne effectivement daf maa trahir parce que dañoo toog waxante dañoo toog waxante lii ne lii la ñuy def ñu war ma kon yow boo amee fit nga ne Macky Sall da wor mais amal fit aussi booy ànd nga ànd ak Sonko. pour fayu pour wan Macky Sall ne ragaluma la pour wan ne ko waron nga ma jël mais bo andul ak Sonko Macky Sall sàcc élection yi Benoît Sambou gagné kon Macky dalan ah yo da ngay soppe xamna non la la def Abdoulaye Balde oh, ñu lay xol ñu ngi xool ndax di nga and ak Sonko mais man gëmuma ko amuñu fit mais ànd ak Sonko ñak ànd ak Sonko Sonko Ahmed dara moom nee na Macky Sall dafa saraxe Casamance waaw ndax Balde moo fa munoon nekk sonnal Sonko Macky Sall jëlul Balde Balde moo doon maire bi yàgg na Casamance sànq def naa lire na ñu ne 2009 def naa lañ ko lañ ko lañ xaw ma ndax xaw ma sax ban année lañ ko kii la nekk mais xaw ma mais moom moo nekkoon Casamance kon kooku mi ngi naan non ñu ngi xool diggante waa benn bokk yaakaar. ñu ñi ñu dàq ñëpp ñu ngi jéem a xool ndax dañuy jéem a booloo pour dem ci mairie yi def benn coalition gaa yi laaj ko ne est-ce que mën nga ànd ak Sonko mu ne ah way waxuma duma ànd ak moom waxuma dina ànd ak moom loolu la wax loolu mooy duma ànd ak Sonko waaw léegi nag kii moo waxoon ne Sonko warul nekk maire euh, mba maas ko fi dal damboj

Ahmed Aïdara nee na Sonko normalement daleen war a rey kon nag Dame Mbodj mu doon wax bu mu doon wax Sonko waru présenté Sonko bu bëggee wóor a victoire moom ci boppam boo war a présenté waaw tey nag euh, revue de presse revue des titres waa ji laaj na Ahmed Aïdara mais Ahmed Aïdara bëggul tontu nee na du ma waxante waa Yewwi Askan bi du ma ñëw fii di ko fi wax mais Ahmed ni mu waxee am na lu muy demee. Sonko moi, moi, moy moi, fay moi, te man Sonko def maire présidence bi nga maire jox ko comprendre voilà kon moi, kon merci Macky merci Macky Sall problème il va faire il va faire beaucoup de mécontents wa PS ñu commencé Aminata Mbengue Ndiaye ndax Aminata Mbengue Ndiaye moom dafa jébbalu ci Macky Sall waa PS nar nañu fekk maire yu bëri yi ñu amoon a koy fekk askan bi ñun suñu problème xam nañu Khalifa Sall bëgg ñu imposer solennel solennel war nu mu sax solennel war di nii xaw ma sol xeem xaw ma sol yére xaw ma sumeeku yére war di sol leen xaw ma bu leen sol war war moom lañu bëgg a sol ñun problème boobu la am ak xalifa xalifa Sall ba léegi kenn tontoogu ma yow kii bokk mburoog soow AFP la bokk Moustapha Niass nga ne moom la ñuy jël sacrifier Barthélemy ba Barthélemy sax obliser di génn di def ay conférence de presse déclaration de presse ngir jéem a dëggal boppam mais loolu dafa ñaaw Barthélemy ak ak ak xalifa Niass mënatuñu xoolante

faut que je mais Macky Sall dafa comprendre du élection moy tax Macky Sall dem Nous nit yoré ñaar fukk ñaari kër yu mel di je ne cesserai de le rappeler Nous, génné ku nekk ku nekk APR commencé ko famille présidentielle la dynastie là la soi-disant dynastie Faye nañu commencé si ñoom ñu commencé leen saytu ku nekk fan la am kër ñaata oto la yor ñaata milliards la denc loolu buñ ko mënee xam ñu ne ko weng taf ko ci internet bi topp leen ci nag ba deux mille vingt quatre sëgam dinañ fa egg billaahi wallaahi taalaahi loolu buñ ko defee dinañu abal suñu réew waaye pétrole bi pétrole bi ak ragal dem kaso far ba moom ngeen baal ma waaye moom kasaw kasoom dafa leer Farba kasoom dafa leer moo tax bakkenam la ci teg dina jël ay mbër dina jël ay nervi yóbbu leen ba fële waaw moo tax li kiy def tamit ñu ngi ko ciy gërëm rappeur bi nu mu tudd Dof Ndeye Dof Ndeye ñu ngi koy gërëm bu baax parce que wane na ne waa APR ñoom pare nañu sax pour armer ay nervi jox leen pital wal fajiri laa ko doon seetaane Dof Ndeye mais vraiment dof day jëri la quoi non boy gars yi <laughs> ay waay Sénégal fu ñu jëm dama leen di ñaan rek bu leen dem léegi bu leen jeex bu leen yàq sama live dama leen di ñaan yéen 176 personnes bu live bi jeexee après ngeen dem Walfadjri ngeen déglu ngeen seetaan Walfadjri TV YouTube loolu la tudd Walfadjri TV ngeen déglu li Ndiof wax présentation bu mu def. Belle présentation 15 à 20 minutes Nous bind les graves xawma, révélation de Dof Ndeye xawma, sur Cicelo sur Cicelo et et et Aliou Ndiaye mais Dof Ndeye moo lay wax li am ci prison bi xam nga maa leen di wax paquetage di leen wax prison Macky c'est l'enfer gis nga safara ci suuf mooy rëbës billahi barki rasulillah gars yi sax dañoo mënul nettali gars yi ne nettali pas nettali man maara de Italie yàlla bu ma dugg rëbës mais man su ma duggoon rëbës ba génn gëm naa ne kenn dootul dugg rëbës parce que gars yi seen nettali moo des man dof ndey bu lay expliquer benn chambre boo xam ne quinze personnes ci war a nekk yooyu ñu def ci deux cent personnes benn douche xam nga loolu yëpp yàgg nañ ko wax dof ndey yooyu la doon wax boo ñëwee ñu summi la ba nga set ah, sukkal xol sa poqataan xol 4 jours après ñu ñew ne la yamba bi ya ko fi indi yamba bi ya ko fi indi te yow dañ la fukk fukki ba nga set sa famille indi ci la lekk sa famille indi lu ci la lekk ndax Covid bi léegi Covid bi xam nga lekk yi fa lañ ko def ci ay siwo dof nday mooy nettali de maafe nañ lañ koy def ci siwo Grand Yoff Grand Yoff ba medina te siwo yi ñom ñoo jaay wa prison bi ñoo jaay gars commencé nañ dem di De seetaan deglu len rek ma wax wax ma nan lañ koy ci siwo Grand Yoff sa famille bu lay indil da koy def ci siwo ñeex bek ñankatan bi la a de tamit la la di wax 2 heures de temps lañ la may de entier deux heures de temps rek lañ la may nga ci cour deux heures de temps kon heures yaa ngi ci biir moo tax ñu bari bu ñu fa yàggee seeni bët day dem ba yàqu man sama koñ HLM bi ma dëkk am na benn gaan boo xam ne daan jaay yàmbaa rek dañ koy jàpp tey su bu mu génnaat jaayaat ñu yàqu mais léegi boo ko gisee def na ay 15 ans ci prison léegi bët yi dafa yàqu benn ba muy mujj dem ma ko romb nii gisuma sax mais dox foofu yëpp mais ñoom mënuñu nettali mënuñu yàlla bu ma dugg la bés man xam naa ne bu ma ñëwee Sénégal moom bu Sonko nekk président mu ñëw Sénégal dinaa dinaa dinañ ma yóbbu bakatas parce que dama leen sonnal defuma dara de xam nga fii man waxuma fi dara boo sàccee nag dañ naan farba boo sàccee dañ naan la da nga sàcc mais gars yi boo boo boo leen di dal boo leen di dal dañ lay bàyyi xel gisoo xalkulaat bi ma doon waxal démb xam naa ne yónni wuñu mais ba may ñibbi ci yoon bi la ma gis rek xàmme ma fin bi mu naan ma jox ma sa numéro ma ne ko saay bàyyi noonu bëgguma sax joxe sama numéro mais gis nga li am rëbës dem leen après après dama leen koy ñaan rek dem après ngeen dem Walfadjri TV maa ngi leen defal promotion mais jar na ko xam naa ne émission boobu sax ku mën a seetaan lépp sax man gis ko sax am nañu xel parti dof day ñu damm ci la dof nday nag di la wax condition yi ñuy dund ci prison bi yemu fa nag mu ne par exemple corona amu fa ndax garde yi ñoom ñoo indi wànneen ñoo indi wànnet ci prison bi ñoom ñëpp ñu nekkoon ci chambre bi am wànnet loolu bu dul safara lan mooy safara nga nekk ci benn prison ñëpp am wànnet ñëpp wànnet mais nee na bu corona amoon kon ñëpp ay am corona kon corona bi amul ci prison bi ci la leen nettali affaire Sisolo nee na Sisolo moo ko jox fital fital la ko jox jox ko ay millions ne ko Youssou Ndour ba mu fi ñëwee dañ ko ay xeer ñun kenn duñu sànni.

xam dañuy dem jàpp kooku mais Cissé Lo Dof Ndeye nee na lu tax ba mu leen waxee ne Cissé moo ko jox arma bi arme à ak ay jaas yi pour ay nerf bi lu tax ñoom demuñu jàpp Cissé Lo lu tax demuñu jàpp Cissé Lo mu ne Aliou Ngouille Ndiaye Linguère ba ñu demee Linguère Aliou Ngouille Ndiaye moo ko jox gilet pare bal pour lan bu nit naree ñëw pour tiire Dof Ndeye day ñëw.

Macky dalen leen ñun ñep ñëpp Macky da xam soit da jox xaalis bu bari nga nopi wala mu xol immeuble li nga am wala xaalis bi nga am mu nangu bo dof-dof la mu tëj la c'est très simple waaw mais dal mais dal bu ñu démé ba gis nak yeuf yi commencé di euh, euh, éclater scandale yi di éclater ñun du ñu bett man nee fi ba 2024 vous aurez des des révélations euh, wa APR mom jëfru bi parce que APR fu nek xam nañ ne le navire est à l'eau. Les rats euh, sortent du bateau, n'est-ce pas Parce que le navire, le navire est en train de couler. Comprends Waouh je Macky Sall du wax troisième mandat du élection yi vraiment ñu ngi à commencé gën je am waaw comme Ahmed Aïdara moom am lu le xam bu Macky dafa je kon ñu même sans yàlla au moins Sonko gagner. vraiment ce sera une victoire très simple. tamit Ahmed voilà c'est live bi gars à minutes Euh, pour vous rek de ne euh, Farba moom Farba la ñu gën a Farba moom la ñu indil mais euh, en tout cas boo leen déggee ñu ne rapport boobu foo rapport la bu mu leen benn <laughs> man de mënu ma gëm ne rapport boobu rapport OFNAC boobu dëgg la am na lii c'est une mine d'or rapport OFNAC mais yéen fan ngeen ko xamee fan ngeen ko jàngee man gisuma ko fenn ah. xalaat TV sañu ñëw rek gën def def émission noonu dañuy jox ay ay yi comme ça xalaat TV xalaat TV du ñëw rek ñu wax ay kër Almadies kër euh, Mermoz Sacré-Cœur cité Damel cité Gorgui Saly Somone oh mais Farba Ngom vraiment mais mais nag ñoom seen badaxal badaa mooy li mu wax rek xam ngeen ne gars gars yi xam ngeen far Farba Ngom mu ngi si badaxal mbadaa milliardaire a neex yaay saa yi ñun dunduñu billaahi wallaahi tallaahi xool leen Farba Ngom kat kat yi mu gaare ci këram xool leen xool leen xool leen rek almadi rek am fa kër benn kër waxtuma la nga am fa juróom xool leen immeuble Mermoz huit étages gars yi xool leen jox la fa huit terrain ñaata terrain huit deux cent mètres xool leen gars yi xaalis nga yor ko ba mën a dénk deux cent cinquante millions sa mag wala sa rak wala nga may ko ko doomam di ko sàcc te yow doo ko sax yëg sàcc na ko trois jours xamuñu si dara gars yi ci yumbe bi ñu nekk badaxal mbadaa bi ñu nekk mu mbaay cakaay ambiance ak wax leen ma terme gundaa daat bi ñu nekk

escalade xam nga ay escalade la ñuy dawal loolu dawal ay x Mercedes ñuy wax toys les jouets façon jouet bu nekk am nañ ko Dubaï rek ñu mu rafetee nga fay tamambalu comme kuy dem marché Sandaga ah Monaco bu la neexee sax yenn match de tennis yi Roland Garros xam nag ñoom ay baadoo mu ñu mënuñu dund man bu ma nekkoon rek dama leen di rey man foofu laay dem ay ay Roland Garros tournoi tennis jënd jënd bu baax chaise bu baax toog di seetaan ay tennis Monaco nga xam ne climat bi dafa rafet des fois nga dem Mexico non Mexico wóorul bëri ay parti Mexico li ñu fay li ñu fay kidnappé bëri na mais mën nga dem ay Monaco ci plage yi loué benn bateau invité sa famille wala yooyu gars yi ñu ko am ñu ko ciy def ci ñoom de Aliou moom xam naa ne mu ngi non Dof Ndeye dafa toj télé bi Dof Ndeye mais indi na boppam problème de. dinañ ko jàpp Dof Ndeye dinañ ko jàppaat moom ni muy attaqué gars yi dafa ëpp moom Aliou ñu Ndiaye la tudd tudd Cissé Lo ah Dof Ndeye da def attention de mais dafa ay Dof Ndeye ak a mën a wax il est fort man xamul tax temps yi sax génnatul ay son mais album bi mu njëkk génne album boobu neex na bandi di ma ko may ah di ma ko may xamale nga duma ma duma lef naay duma ko may eh bandit ak ay album boobu moom dafa neex mais lu tax génnatul ay son man moo ma jàqal il est fort Dof Ndeye mais guerrier la <laughs> vrai sadique la mu tuite noonu noonu la sadique <laughs> gaa yi ñemewuñ ko de <laughs> dégg naa dafa gaaw a jamaat temps yi dañ ko jàpp parce que frère am xaw ma dafa jël xaalisam mu génne ko goon la ko génneel ku sole frère am moo ndax mu jël xaalisam mu jël goon ku sole la ko génneel ñu tëj ko deux mois xaw ma mu ngi doo génn mais ba léegi rëbës dafa garaaw mais deux cent personnes gars yi nan la mën a nekkee nan la mën nekkee ci ci chambre nee na trois siwo lekk bi trois siwo lañ leen di tegal jagaan xaw ma lekk bi mu tudd jigaa xaw ma jagaan seen lekk boobu trois kilos trois deux cent personnes nga dugal trois siwo ku nekk kopp bu toll nii ngay am lekk bu la sa famille indilu xaalis yàqu nga bu la safan indil ay añ yàqu nga yooyu yëpp koy nettali mais rëbës se l'enfer yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na dëgg doy rëbës ñoom man gars yi sax dama xamul nan la ñu génne parce que ñoom dof ndey dañoo am chance parce que ñoom bu ñu ñëwee chef de chambre yi chef de chambre dañ leen di utal affaire yu baax waa jagan jagan dégg naa boo ko lekkee mën nga toog une semaine doo dem douche ah 200 personnes ci benn douche waaw gars yi douche boobu noonu la war a mel xam gars yi mënuñu nettali man bu fa nekkoon dama naan la douche day xeeñ chaque jour saw xetu saw da lay xetu góor da lay xetu xetu day imaginel chaque instant di ñàng rek c'est-à-dire ñoom mënuñu nekk li fa def ñoom gars man nekkuma fa de man li fa nekk xam naa ko nekkuma fa mais man li fa nekk xam naa ko c'est-à-dire yi ñoom na naan la rek deux cent personnes benn douche déedéet doo wax loolu da nga naan deux cent imaginer nga deux cent personnes benn douche douche yi du mës a set des fois da ngay ñëw douche yi day fees del la gars yi ngeen baal ma kuy lekk bu yóbboo nga dem douche si day fi fi ngay kiwee nii il faut nga toog ci affaire yi parce que ndox mi du doy des fois robinet day tëj da sotti ba sonn du dem xet bi di la rey comprendre guddi bëccëg imagine leen tàngaay bi ñuy wax ne temps yi dafa tàng Sénégal te foofu ay ventilateur la leen di jox du ñu defal climatiseur ventilateur am na ñu koo xam ne fil fil ventilateur moko ko mujj maas ba mu dee xet bi ñak bi paquetage amna ku ne nit dox momo wax loolu loolu moom mang koy doga xam rëbës chaque jour nga jàng lu benn moo tax ma ne gars yi mënuñu nekk nit dof nee da ngay teud 3 heures de temps may kenen mu teud 3 heures de temps tellement dafa fess mais rëbës c'est l'enfer loolu nan nan la mu nekké da ngay teud ñetti waxtu ñu yéla keneen tëdd ñetti waxtu ñu yeeku parce que dafa fees ba amuñu sax fu ñu tëdd dégg naa am na ñoo xam ne dañuy langaamu ba suba car rapide comme car rapide tellement dafa fees en ah yéen paquetage ngeen di wax xam man maanaam bu ma ñëwee dañ may yóbbu paquetage paquetage sax amatul paquetage am mais dafa fees ba nga xam ne foofu am ñu taxaw langaamu ba ba guddi wala nga tëdd 3 heures de boo xamul chef de chambre bi nag ngaa ko blende loolu ko may chance parce que célébrité la bu ñëwee gars yi dañ koy may fu mu tëdd mais luñ la may may fu mu tëdd chambre deux cent personnes xet bi ñii di sëqat ñii na a wànnentoon appat ñëpp bi salte bi ñii di sëqat ñii am ay góom ñii am taab am na su ñoo xam dañoo dof billaahi affaire góor jigéen sida nee na mi ngi fa waaw kay moom mun na nettali moom ndof nday mën a ndey parce que ndof nday nee na ba mi ngi fa te boo ñëwee benn tondeuse <coughs> loolu rek loolu rek war na tax ku ku mën a bañ a dem rëbës nga jéem a def tout pour bañ def loolu man xaw ma ko woon chaque jour nga dégg lu bees semaine bi dégg naa ñaari yëf yoo xam ne rëbës xaw ma ko woon mooy nit daf nee na da ngay tëdd 3 heures may keneen ñu tudd troisième dof ndey nee na booy doog a ñëw tondeuse bu ñu lay wate benn la benn guinéen moo ko yor tondeuse cot ndaay loolu c'est bu ñu ñëwee tondeuse bi mu poos la deret takk deret takk wax boo expliqué woon mais waroon bàyyi ñu bunte

motax suñu activiste yi tamit vraiment maa ngi leen di critiquer de waaye nak ay tan tum xaq yi nag ñu ngi Guy Sagna ñu ngi leen di critiquer mais mu ngi jël ay risque man nak yag na ko wax naa gi mari mo tul parce que prison mom Rebeuss mom vraiment ku koy def mom patriote nga quoi parce que li fa mëna dal yépp la ilaha illallah ay way Macky ya bon Nous devons dañ libérer parce que l'homme c'est pas humain Les c'est pas humain mais comme nous, nous ñoo Nous devons nous parce que nous, sommes dal ay sénégalais nous devons leen libérer que nous ci nous. mois 7 ans nous nga fa injustice nous ñu am ay

wax ji ñëpp di wax ñépp di waxandoo nappante bi da ci am ay chef de bu ñuy tëdd dañuy takkaloo loolu affaire góor jigéen sax mën na fa am paquetage jege naa da ñëw ndef nii kenn ñëw fës la rek ñoo xam ne gisuñu jigéen 4 ans 7 ans nga jël leen fës leen rek mais quand même ba pare ñu ne Sénégal dëkku jullit mais dans les pires prisons du monde loolu amu fa. Rebeuss ça fait partie des pires prisons du monde man condition yi ma wax Rebeuss gisuma en sax ci yenn yenn yenn prison ay Philippines Madagascar nag prison bu la foofu nga gis kaña yi di daw nga gis lépp ci prison mais Rebeuss li fa am paquetage Tambolo, jaga ay terme dañu dem ba am ay terme des fois nga jékki-jékki nit dee ñi am ay taab tuberculose la ilaha illallah dégg naa am fa tuberculose non non mais c'est l'enfer motax tax li ne lii affaire franc-maçon la billaay ñom ñi nek ci nguur bi dafa melne ne ils ont un pacte avec le diable Lucifer Iblis mo len di wax il faut que nit ñi di souffrir te li ma ci jaaxal dañuy gëna japp di gëna fessel prison chaque 3 mois ñu ne la Macky Sall libéré na 1000 mais terewul prison yi tey la gën a parce que policiers yi dégg na bu ñu la jappé dañuy am xaw 1500 mille cinq tam c'est pas sérieux policier boo xam ne salaire am dafa ndaw policier buñ la jàppee bu la rek dañ koy fay 1500 bandi boo jàpp ñu defeere ko xam nga 1500 lañ leen lexaw ma loolu tax tamit ñoom ñu gaaw ci defeere nit mais war nañu xoolaat li am rëbës parce que jombul kenn ah surtout ñun ñii ñun buñ ñëwee dañu fa yóbbu buñ ñëwee dañu fa yóbbu non c'est extraordinaire moo tax su ma nekk ci laaj bi di ma di ma critiquer mu ne ne yéen toog leen foofu rek ñun ñu leen di xeexal di jël ay risque ah yéen ngeen toog ko sëgam samay abonné yuy commenté sax léegi dañoo tiit am na xam da nga bu ma wax turam dafa moom day nekk kay toog di commenté di commenté ci man di commenté ci ñëpp mais nee na ba mu demee aéroport nee na ba mu demee aéroport dafa tiit pour moom dañ koy jàpp

jëlé fa sida loo fi jëlé sida parce que bañ lay wat lañ set bi la doon waté mom lañuy waté ñëpp même lambi, même tondeuse même bu changer changé sax wooru c'est pas c'est extraordinaire Amérique de lolu amu fi lolu bu ñu ko défé ba nga am sida mom après da nga leen am ci 1 milliard mën nga tëgg 5 ans ñu xey benn jour rek né la défo dara dama ñibbi requin noir noonu lañ ko defoon benn waa ji wax dëgg requin noir dañ ko jàpp cinq ans cinq ans lañ ko jàpp mu tëdd cinq ans après ñu xëy benn jour rek ne ko ñibbi te boo ñibbee duñ la duñ la jox duñ la euh, ndàmpaay duñ la dara Abdoulaye Wade jaar na fi loolu amul Abdou Diouf xëy na garaaw loolu mais mais Macky Sall vraiment war na jóg ci li daal ñu bàyyi ku ñu jàpp laxasu yàmbaa rek tëj la ay affaire yu ñàkk fay dañuy dañu gaaw a defeere nit léegi maa ngi dégg ñaan dañuy jéem wut ay bracelet électronique bracelet électronique bay jàppe tabax yeneen prison fii Amérique ku nekk ñaari prisonnier par néeg lañuy def ñaari prisonnier par néeg te loolu sax wóoru des fois nga gis benn prisonnier bu buggul bu buggul bokk néeg da lay day rey day rey bu mu bokkal néeg ak fay bëri ñaari prisonnier ñaari mais nga jàpp wala bu ñu leen di boole dañuy dugg saal bu gan la ñuy jël def fa ay lal individuel loolu tam gis naa saal bu gan def fa ay lal individuel mais day am espace nit ñi di dem di ñëw mais néeg benn néeg deux cent personnes gars yi quand même ah ci dégg doy daal moo tax ma ne la Macky Sall dafa soxor dafa

condition gëm naa ne bu ma génnee su ma ci defee benn show <laughs> wax leen détails yi <laughs> xam nga aussi dañoo muus doo mus a gis ku sàcc téléphone ku fexe ba am téléphone filmer li nekk ci daal génne bu doon yeneen dëkk yi dinañu fexe ba fay benn carte cent mille francs da koy jàpp daf day tey am na mu doon def ne mu fay benn carte cent mille

ils sont tellement forts Ils sont très ay Ils sont très forts. ay mais c'est incroyable lépp bu raconté photo vidéo tant que nit gens une vidéo duñu offusqué wu li wax euh, euh, a picture is worth a thousand words words une image wala une vidéo vaut plus que 1000 mots affaire faire boo koy dégg dégg rek doo ko gëm mais xalaat ci biir loo ko génne la génne la rapport wane ay kër wane oto yi wax la ne vingt sept kër la am un terrain lu mu am ci oto mat na un milliard su ko doon jaay ci lay commencé choqué te dafa des sax c'est-à-dire gars yi xeex mënuñu xeex mënuñu xeex Sénégal Sénégal seen xeex moo des am nga rapport mais xoolal rapport bi yow ñoom jomaay ñoom ñëpp impôt demee nañu liggéey mais doo jël rapport bi kër yi ñuy wax yëpp bu ci nekk nga xool adresse bi benn kër rek lañ ci wane mooy bi bi nekk bi ñu wane oto yi gaara mais léegi am ngeen rapport bi da ngeen di fexe ba xam kër cinq yeneen cinq kër yi nekk Almadi ngeen filmer ko ngeen ne bii kër kii la bii yii mooy cinq këru Farba Ngom Almadi après nga dem Mermoz ñaari immeuble yooyu ñuy wax bu nekk huit étages nga filmer ko am na nu muy demee sax ñu bind résidence Farba Ngom nga filmer ko boo jugee foofu nga dem Sacré Cœur ñaari immeuble de sept étages nga filmer ne xool leen boo jugee Sacré Cœur nga dem Point E am na foofu am na fa ay kër nga filmer ko Sénégalais lu mu gis lay gëm il faut que muy gis moo tax Xalaat TV bi buy def di wane ay ay immeuble xëy na sax bu immeuble Farba Ngom mais ba tey tane na. parce que ñu bëri dañuy jàpp ne immobilier yooyu Farba moom moo ko moom c'est-à-dire ñuy xeexee moo des day jar nga dem ba Saly kër googu mu fa am ak terrain yi ñuy wax ay aéroport nga dem nga filmer yëpp da koy filmer seen xeex moo des quoi ñu ngi xaar nag xalaat TV gars yi naa jeexale foofu xalaat TV ñu ngi xaar nga defal ñu bu mel noonu ci Amadou Sall bu dee dafa am bu dee li ñuy wax dëgg la dafa moom it dafa am ay kër mu ngi ciy xaar parce que Amadou Sall moom rapport OFNAC ñu ngi ko gis Aliou Sall ñu ngi xaar Macky Sall ñu ngi xaar Mariam Faye ñu ngi xaar Mansour Faye ñu ngi xaar ak képp ku nekk ci gouvernement Macky Sall am ay kër yu jeex ñu ngi xaar ngeen génne document bu mel nii sëgëm sëgëm jël nañu ah man damay jàpp ne ah Macky bu demee ba am fit di wane Farba Ngom ah kon loolu moom dañ ko ciy gërëm loolu moom c'est un point très favorable ñu ngi xaar la confirmation wala weddi que ne rapport bu baax la wala baaxul mais bu dee rapport bu baax la Macky Sall ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy applaudir man xam nga man c'est rare c'est rare ma tàcc Macky waaye nit ku def lu baax dañ koy wax yow sa collaborateur bu la jege yeneen rapport yëpp nga nga nekk ko bosam nga bàyyi mu génn te yow xam nga ne bu génnee danga ciy tàq loolu Macky bu ko defee nag ah dañ koy tàcc moo tax man mënu ma gëm ne loolu am na mais fii ak suba xam naa di ngeen ma indil ay confirmation voilà gars yi naa naa def live live bi tey parce que tey vraiment commencement bi dama commencé yuuxu yuuxu ba su ma continuer di def su ma continuer après damay su ma demee kër gi damay sonn quoi damay am dama feebar sax waaw kii nee na c'est du bluff lan mooy bluff non du bluff rapport bi moom bu amee ñu confirmer ne am na ah non Macky Sall soit am nu ku ko ba génn loo xam ne yëgu ko wala bu dee Macky moo ko def ah dañ naan ko bravo dañ naan ko bravo vraiment c'est très de sa part moo tax man mënu ma ko gëm yéen daal dem leen ci loo leen ci xam rek suba wax leen ma mais bu mu leen bett de man weddi bi laa gën a yaakaar ne mooy am xam la laa gën a yaakaar non du rapport bu baax non c'est faux c'est pas vrai dañoo aay nag ak ñoo aay waaw sama batterie sax mu ngi jeex ak ñoo ay ci loolu ok balaa gars yi sama voiture signalé na 20 pour cent xaaral ma sauver live bi balaa ma koy ñàkk kon ba suba incha allah kontaan naa ci yéen kay soof sax xam naa boo demee mi ngi def live moom par mercredi lay def live xam naa moo tax gars yu bëri sax nekk waaw waaw kon a ah, kon à suba ba suba incha allah jaajëf roqee merci tàggul ma ñëpp